mais que na maison de la culture duta sec te koy o yengole na khoyele aaday réew mi aaday réew mi koy a wa sala Bigé sala bige o leng laykatiran na sénégal arif o kiin o paax andoona a an tona to samta wade o serer ojola o ƴoola wade o olof comme ni ko waxee ci serer mangi wo Euh, suma mbokk séeréer yëpp di woo sax ñu nekkul séeréer ndax Sénégal kenn mënu ko xaaj ñaar Sénégal benn bopp la ñuy def nag émission bu mag boo xamante ne moom la ñuy tuddee aada aada réew mi aada réew mi nag boo ko déggee séeréer def cee bokk joolaa bokk ci xaalpulaat bokk ci ak yeneen xeet yi nga xam ne ñoo ëmb Sénégal ah ku bëgg a dëgg tëgg bu neex boo ñëwee fii ci jour ba da nga gis cosaan cosaan nag waat naa ne ku ko bàyyi ku wàcc sa ànd ànd boo yéeg fekk fa boromam kon Sala Bigué moo daa nga am ay yu neex na waaye bii Sala Bigué yaa ngi doog a am émission ndax xam naa ne da nga da nga boreeg séeréer yi ba ñu daan la wala nga daan leen matériel Kadim Production Mon de Lucie, au stadium Iba Marjob, le 28 mars Mounek Nyare le journée Volé ay espoir Yudaywar, doy waar 4 yu école de lutte Balagaï, Waïdia Karlo jàkkaarloo ak Molo, Yoff Waranek, Mbolo drapeau monsieur PS coordonnateur du mouvement Barème 2019 banlieue en action pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Invité d'honneur du monsieur Karim Sall. Combat spécial, sal Bambé, Moti Diakarlok Bébé Bisbi, drapeau Bassako, du mécanicien, Bouga Khamni Boudjogé, askan bépp combat préliminaire Santos moo ci numéro 2 Fay Waltidia war ci Boy Auguste war ci Georges ak George Mambala numéro 2 war ci jàmmarloo ak maanaam war ci bëree ak dut sec numéro 2 bébé moo ci jàmmarloo ak reenu guy gi Canabaas war ci bëree ak Pape Morlo numéro 2 Lat war ci jàkkaarloo ak Baro waaye nag bés boobu Khadim Production Miguel ngi ci ak Deloko, son excellence le président de la république Macky Sall Mariam Faisal première dame présidente fondation Servir le Sénégal madame Amina Touré envoyé spécial du président de la république honorable député Awagnan, question à l'Assemblée nationale responsable des femmes de Pikine Bab Gorguindang, ministre de la jeunesse monsieur Modou Benjo, directeur Ndiambour responsable APR Sud monsieur Abdou Karim Fofana directeur de l'Agence du patrimoine bâti de l'État. Docteur Cherkante, ministre en charge du PS. E. Monsieur Issa Rodio, coordonnateur de la jeunesse. Beno Bokiakar de Pikine, maire de Pikine-Est. Monsieur Abdoulaye Timbo, coordonnateur de la ville de Pikine. Avec l'ensemble des membres de la CRIC, Sénégal et de la diaspora. Wayenek Fateou, Monsieur Mohamedou Martar Sissé, directeur général de la CDLEC. Kodok Boki Amateur, rendez-vous le 28 mars au stadium Iba Mar Diop ànd ak Khadim production Gàkku 2 war ci ak Caatu Yoff combat spécial ba Salba Mbaye boo ci ak bébé bis bi ci wàllu Radim Production mi And, Akker tout ce qu'il faut pour votre ménage ak Nonafi Faloufal, la célèbre voyante ba Kambouselbe. xam Milmi Migiwaram, le 28 mars au stadium Iba en direct sur la DTV

Très bien. C'est important, important qu'on se retrouve euh, pour le dernier numéro de la semaine, comme vous le, euh, vous le, vous le, vous le vivez euh, tous les jours, du lundi au vendredi, 17h, 19h. Ñu ànd ak yéen ci li nga toi-même tu sais le rendez-vous incontournable. Ñu ànd ak nag tey mi nga c'est un fervent talibé muy talibé Serigne Abdul Aziz Fall mi nga xamante ne jamono ji moom moo waral mu def jéego yu am solo ndax moom mi ku ko xam wa Guèye muy doomu HLM waaye jamono ji mu ngi bàyyee ko foofu ca Mbour di ci def jéego yu am solo a ñu ko gënee woon ràññee nag mooy ji jëm ci wàllum zikar ndax maam Baye Fall dëgg la waaye tey mu ñëw ànd ak ay mbokk taalibeem ngir ñu def lu am solo lii ci biir toi-même tu sais donc ci loolu dinañ ci présenté euh, ku ci mel ni euh, Saliou Diouf mi nga xamante ne moo nekk ci batterie bi euh, sargal ci guitare soliste bi mu di François Badji guitare basse nag ñu ngi ci ànd ak El Hadj Niang waaye ànd ci percussion mu di Pape Faye ci ginnaaw nag Aïcha donc voilà, ñu ngi koy ñaan mu yexé sur ce plateau ngir ñu gëna mëna waxtané a lépp li nga xamante dem na ci carrière ak perspective euh, dans toi-même tu sais euh, donc di sargal les Sénégalais de l'extérieur qui nous suivent en direct grâce à l'application DTV Sénégal ou bien notre site internet www.dtv.sn euh, mais vous nous rejoignez en direct bien sûr sur notre page Facebook moudi di toi-même tu sais donc da ngeen di def ci page Facebook bu DTV Sénégal mun ngeen ci am émission bi mu nek en direct donc ñu nek ci li nga xamante moom mooy lendemain euh, date bu am solo bi nga xamante ne euh, moom nag luñ ko duppee lenn lu dul euh, li nga xamante ne moom journée internationale des droits des femmes mi nga xamante selon l'appellation officielle bu l'ONU nga xamante ça a été boobu ba depuis 1977 ba tey ñu ngi koy màggal un peu partout à travers le monde lu ci mel France ñoom it ñu koy célébrer le 8 mars donc démb nag ñu dund ay mbégte yu yaatoo yaatu ndax soxna yi xam ngeen ne dañ ne kër bu amul soxna ker la waaye tamit société bu amul jigéen moom dafa melni du société ah, donc défar ben jigen da fay melni société nga défar ba taxna ah, lélé mom lañuy tam di tooñante né si j'étais Dieu j'allais retour recommencer euh, sauf la femme Alaaji Sall Bigué Ndiaye l'ami du président de la République du Sénégal chéri neex borom ak Linguère borom abi du jour euh, liggéey ci liggéey bu am solo and euh, kok son excellence président de la République du Sénégal fofu ci stade Ibomar Diop donc très rapidement Alaaji Sall ñu dellu ci ci journée bobu nga xamante ne jàpp nañu ne sax amaanaka bëss bu jot bëssu jigen la effectivement Nicolas 365 jours yeb jigen ñee ko moom mais day amna gis bo xamni ci lañ leen di nak mm. ñu wone sen bop mm. mooy 8 mars bi mais man japp na ni 365 jours yeb mm. jigen ñee ko moom. tout à fait parce que jigen li nga wax légui rek jigen moy société. bo defee ben jigen defar nga société té jigen jigen jur ñëpp. jigéen mooy jur ñëpp. te wax toujours rek euh, fukki sama doori góor wala fukki caayee góor ben série jigen mën ëmb. Mm-hmm. kon donc aduna mënul dem sans jigen ni comme buñ lay sargalé Euh, boo nee jigéen ma jur rek li ci des jarul nga ay jabar yeeg yaay jar boo nee yaay rek ñëpp dugg nañ ci biir kon encore une fois ñuy wax ni rek euh, jigéen ñi nañ leen gën a jox seen cër mhm. góor ñi nañu respecté jigéen ñi absolument boo bëggee say mbir yokk say mbir law sa dund tey nga am naataange am lépp loo soxla ci àdduna da ngay fonk jigéen jigéen dañ koy fonk dañ koy sutural mm-hmm. lu ne mën nga ko sànni fekkaat ko fu ba mu des jigéen jigéen kenn du ko taroxal tout à fait c'est très important donc muy journée internationale mettant en avant li nga xamante ne mooy la lutte euh, pour les droits des femmes et notamment euh, pour la réduction des inégalités euh, face aux hommes donc du ñu def rek lu dul ànd ak Mohamed Thiam ngir mu wax ñu rek ressentiment bi mu am ci journée internationale des droits des femmes euh, mu nekk loo xam euh, contexte bu am solo puisqu'on parle de d'égalité égalité euh, ci volet yu souvent suñu société traditionnelle yi tout le temps dañ koy gis muy nekk ci ginnaaw góor mm. wala ci wetam gis nañ liggéey yu nga def nañ parité émancipation de plus en plus ñu ngi gis jigéen ñi di nekk ci instance de décision yi donc suñu gisee euh, réflexion yu bëri yi nga xam ne am na parce mm. que célébration bi partout dans le monde dafa am sous diverses formes réflexion yi nga xam ne am na ci yëpp ak manifestation yi ci am yëpp mm. on espère que dina am ay retombées retombées yi muy am mooy que déjà communauté internationale bi jël conscience que jigéen ñi dafa am place de poigne boo xam ne war nañ ko am ci ni ñuy diriger suñu dëkk mm. parce que dafa mel ni loolu bokk na ci li tax euh, tey ñu mën a reconnaître lu tolloo 87 journée euh, internationale yi nga xamante ne ONU moom la reconnaître donc ci 87 euh, journée une euh, journée internationale des droits des femmes de ci bokk. voilà te même ONU sax am un département spécial ONU Femmes. Hmm. nga xam ni ñoom lu ñuy def.

premier ministre waye dund nañ ko tamit ak Aminata Touré euh, ñu ngi and ak ay jigéen lu ci melni ni euh, madame Diallo euh, Bouri sok mi nga xamantene journaliste la duñu def lu dul waxtaan ak mom ci kanam tuuti lu jëm ci femme et médias parce que contexte bi moy journée internationale dañuy wax de la femme mais lu ci ëpp dañuy gëna taxaw ci des droits des femmes donc aujourd'hui ñu bëggoon xam exactement parce que dañuy gis né traditionnellement dëkk yu bëri jigéen ñi dañuy dajalo ah hein, organiser ay manifestations donc tay ñuy wax walum leadership envers des femmes ci formation politique mais aussi euh, ci autonomisation euh, de la femme de la famille dans le monde rural donc aujourd'hui euh, ñu bëggoon nga wax ñu rek li nga xamante ne bokk na ci ponk yi nga xamante ne gën vous yokk jigéen maa ngi lay gërëm di feddaliwaat célébration bi du coup souhaité jigéen ñëpp mm. Sénégal ci Afrique ci aduna bi yëpp mm. li nga wax dafa am solo autonomisation bo gisé jigéen ñu féete ci dans les zones rurales euh, lolu dafa am solo parce que dañu gis ni réew yu melni ni Sénégal ci Afrique euh, xeyna zone yoy doole bi ak koomu jigéen ñi mm. dafa néew doole ñu bëgg bu ñu bëggé xex

njaboot gi bu fekkee yow talloo sa bopp mm-hmm. sa toogaay sa nekkin xëy na doo dem di daw naan yaa ngi politique wala yaa ngi dugg ci ay euh, euh, regroupement politique mm-hmm. xëy na ba di fay séentu ay poste ay lii mm-hmm. mais nekkin bi déjà nit yi parce que jigéen moo ëmb loolu nekkin bi ci boppam la ñu war a gën a dooleel jigéen yi ba ñu mën faa ne bañ faa taxaw ba mën a euh, yóotu leneen ak leneen loolu moo tax thème bu am solo boobu ren ñu indi ko jéego jéego nag bari na li ci Sénégal def bari na mm-hmm. mais toujours dañuy wax naan doyul mm-hmm. chaque jour dañ ko war a gën a yokk dañ ko war a gën a renforcer mm-hmm. ba nga xamante ni égalité bi nga bi ñuy wax ci ci sañ-sañ égalité bi ci ci koom égalité bi ci ci ci ci ci ci droit yi mu mën a yem parce que euh, xëy na lu bari mi ngi ci biir ñu ngi koy wax mais liñ am solo te ñu jàpp ko ñun mooy wàllum euh, yemale bi parce que tey góor bu jàng jigéen bu jàng mhm. tey jii loolu formation la bu buñ leen jox kon mhm. nag euh, mujjantal ga mooy diplôme ba wala liggéey ba mhm. buñ ca yeggee nañ leen mën a jox les mêmes chance ñu mën a yegg ci ci si loolu d'accord très bien c'est important ba tey euh, moom mi nga xamantene mom moy madame Diallo moy euh, Boury euh, Soccer ci kanam tuuti dinañu yaatal ak mom waxtane femme ak wàllum média tax ràññee nañu bu baax jigen ñi liggéey bi nga xamantene ñong koy liggéey ci biir média mais ñoo ngi and ak aussi madame Rougui Bousso mom mi nga xamantene mom membre le CRD Décalate Ngor donc fofu ci Grand Dakar donc ñu wara waxtane CRD Décalate Ngor quand la transhumance menace le maquis donc ñu nek di wax ba ci journée bu mag bi nga xamantene ñong leen nañ ko jagle jagleel muy de le 8 mars donc aujourd'hui ñuy wax wàllum répartition est-ce que aujourd'hui euh, yaa ngeen di gis seen bopp bu baax euh, ci instance de décision yi ci li nga xamante ne moom mooy société bi euh, parce que xam nañu ne jigéen ñi am nañu compétence yoo xamante les les, léeg sax mu mu mu mu kawe seen i Salam asalaamaaleykum ah, maaleykum salaam. maa leen nuyu ku nekk ci turam ak santam. voilà ñun mënuñu jigéen mënul am loo xam ne tout tudd njortam parce que lu mu am mérite la. jigéen moom mooy àdduna jigéen mooy société. Mhm. jigéen mooy yaay. Mhm. parce que booy doog a juddu rek loolu devoir la parce que le fait ngay jàppale sa yaay si travaux ménagers yi ngay jàppale seen waa kër di fóotal say frère loolu rek déjà won nañ la da ngay jur. donc la fait euh, yow da nga judd rek ñu ne la yaay nga. d'accord donc lépp loo mënta am rek këru yaay nga am. Mhm. kon donc loolu noo am loo xam ne dafay sut sa njort. d'accord loo am rek c'est mérite. donc benn affaire dafa am ci politique surtout ñun jigéen ñi di def politique. Hmm. jigéen buy def politique dafa am fu ñu lay catalogué te boo xoolee depuis adduna bi ba mu sosoo ba léegi jigéen dafa bokk parce que yàlla ba muy sàkk góor la njëkk sàkk. Hmm. mu xam ne adduna bi day imparfait. Hmm, mu wéet mu bàyyi ko ba mu nelaw. daf ko bàyyi ba mu nelaw. mu sàkk ko. waaye balaa moo nelaw wetoon na lool. waaw loolu moo tax ñu bàyyi ko ba mu nelaw. moo tax jigéen moom kër moom bu amul jigéen moom kër la. voilà donc nag mu nekk jigéen dañ ko indi pour mu compléter. complémentarité boobu mun na bokk ci anam bu ne. d'accord lenn rek la ñu mënul nekk moom mooy élément juma. donc te loolu jigéen ñi la ci sax dañuy wax ne sax euh, amaana ka sax yaa leen war a tànn sax ki nga xamante ne moo war a jiite. <laughs> waaw ba ah, tey ndax nañ ku yéeg rek moom mooy wax euh, moom moo xam ndax war naa wàcc wala war naa o des. <laughs> defe ba mu koy jéem euh, ci seen koñ. ba mu yéegee soxna yi dañ la ko wàccal ah. mañ. mu ne ñu ne ko desaat. waaw ah, mais ci euh, leadership ñu ngi wax tamit ci leadership des femmes mm-hmm. euh, dans la formation euh, politique. Mm-hmm. tay ñuy wax ne gis nañu ci élection présidentielle yi nga xamante ne jotoon nañ ci génn gisoon nañ ci jigéen mais à quand jigéen ci biir palais bi. waaw loolu ñu ngi ci ngi ci nekk. Mm. parce que le fait que ñu dem jigéen def ko premier ministre. jigéen mu nekk ci yenn instance de décision. Mm-hmm. jigéen mu nekk ci yenn situation yi. donc loolu dina ñëw te pourquoi pas. Ah. parce que jigéen moom mooy yaay dafa am yërmande jigéen mooy ëmb ah. kon ku ëmb mun na ëmb société ah. ku ëmb mun na jiitu société donc euh, Sénégal moo ngi di ma totalement nous sommes satisfaits. d'accord mais nous, sommes dem ci ci ci anam mhm. très bien donc à part Hélène Johnson bu Libéria Afrique à chaque fois nous est-ce que jotul comme le Sénégal après 58 ans d'existence ñu avons dit, ñi vous leen ah, ah, parce que xam nañu am nañ ci euh, question point de vue moom nee na pare nañu. léegi nee ay organisation ay yëfal la leen dese rek mais yow en tant que góor. jiite réew tamit euh, du loo xamante ni mais yaakaar naa ni que lu ñu gis fii muy ay femmes premières ministres yoo xamante ni jot nañ fi jaar ñu gis fi ay chef d' gis ci yeneen wàll yoo mm. xamante ni jigéen ñi ñu ngi ci domaine yooyu di ci yëngu. rek war na mën a dayal dal xel ci genn wàll que nii war nañoo mën a gàddu lu am réew ndax gis nañ ko ci yeneen dëkk nag te yaakaar naa ni famille évoluer comme boo jëlee Libéria jël benen dëkk bo xamanteni Allemagne par exemple gis nañ ko mm. en en dëkk yu bëree bëri yo xamanteni tey ji jigéen ñi am nañ fa gëdd am nañ fa baat yo xamanteni amuñu loolu malheureusement en Afrique mm. peut-être sur le plan de la mentalité la wax parce que souvent suñ sociétés yi ñoo nekk société yo xamanteni dañ comme ni nga ko wax ci nasaraan mm. ay société patriarcale lañ dañuy évoluer que ni ku góor ki rek lañ tek mo wara a mën wax ci lu bëree bëri mom moo am fété fu bëree bëri looloo war ku jigéen ki souvent dañ koy tek ci suuf dañuy jàpp dafa war ñëw ci ginnaaw hmm. mais euh, kii fi mu toll nii tey mentalité ñu ngi évoluer boo xoolee tey ji ci domaine yu bare bëri nga dem jël par exemple armée bi mhm. nga gis ci bëri woon na koor yoo xamante ni jigéen xalaatul woon sax mu dem ci tey ji mhm. jigéen ñi nga fa mhm. di bay seen waar loolu tekki que ni tey ji jigéen ñi pare nañu ci genn wàll ngir mën a contribuer pleinement li nga jouer pleinement leur partition donc dem naa Gaspard Camara fekk fa euh, département bu ne euh, jigéen moom moo nekk chef de service ba waaw ca Gaspard Camara exemple bi gën a élémentaire bu weesoo loolu sax man comme li buri wax sànq pour revenir un peu ci thème bi boo demaan tey ji ci àll bi ñun barki démb lañ fi sétane ben film boo xamanteni ni ci c'était à l'occasion donc de la journée mondiale ñu anticipé won ko. Mm-hmm. euh dem John Waar fekk fay jigen ñoo xamanteni jigen ñu mën góor ci mm-hmm. walu yu bëree bëri jigen ñoo xamanteni dañuy dem ci ci bir géej gi mm-hmm. bras de mer bi lañuy dem di nuuru fofu ngir génnee li nga xamanteni ni moom mooy xor bi di ko jaayaat mais buñ la waxee jigéen ñooñu loolu ñuy daj 4 heures de temps yoo xam ne dañ koy sëgg ci biir ndox mi di génne walla ni que ni ñooñu. Hmm. Euh, tey jii soxlaatuñu moo leadership wala parité wala leneen ak leneen. d'accord ñu nekk ñu ngi koy bay. d'accord ñu ngi téye njaboot yi téye kër yi te boolewuñ ko sans.

na quatre ans d'expérience ci wàllu musique euh, génnee album tuddee ko euh, Révélation donc Révélation nak nek un album euh, composé bien sûr de huit titres duñu def lu dul ci Cheikh mu won ñu wala bok ñu ànd ak buubu mu won ñu li nga xamantene mom moy pochette album bi Révélation donc muy mélange de musique limi mëna wax moy musique bi may def wool musique la mais aujourd'hui parlons de li nga xamantene mom moy album bi la Révélation mi nga xamantene c'est un album composé de huit titres walige assalamualaikum salaamaaleykum maa ngi sama sering-sering Aziz Mamoud Moussa Fall di siar Baye Fall yëpp di yep. Hmm. waa HLM yëpp. di Mbour yëpp. képp hmm. ku ma xamee rek. ma Nyari barkeelu ñaar ñaari ñaari ton rek si jigen. bala bala ma bismillah waaw hmm. balaa moram kep ku jigen ñaan naa la ñaan yai. la nga la yow yaay defaral sa ndax jigen sunu yaay Moy sunu xol. te moo ni jural sunuy doom jigéen yaay sunu yaay booy yaay sunu xol te yaa ñuy jural sunuy doom mbaa seetlu ngeen di leen buur laawul defal yéen jigéen ñi yéen a jur góor jur jigéen bu jigéen ñëpp jubee gëm naa ni góor yëpp jubandoo ndax jigéen moom mooy sunu yaay booy

salaamaaleykum maa ngi siyaar sama sëriñ si Aziz Fall di leen wax ni maam ki la révélation du génnu ren quoi c'est 2015 mm, quoi mm. génn mm. tey mu si trois ans xëy na ñàkk promotion moo taxoon yooyu yëpp doxul parce que dam jot boo gisee xam nga te tamit ki ma financé album bi après dañu am problème mënu woon kon ne affaire yi comme ko bëggee woon mm. sinon album bi kon dépassé woon na bu yàgg ba mm. fu ñu toll ni pare naa sax pour def sama deuxième album quoi kon bii moom dama koy présenté nii rek parce que œuvre la du ko du ma te boo xoolee mooy sama nuyoo yoonu musique uh-huh. moom laa njëkk def à part single bi ma njëkk def uh-huh. en 2011 xam nga clip bi ma envoyé xamna gis nga ko. normalement. waaw album bi nak tooñ tuddee ko la révélation la révélation moy son sauce nek nekk noonu si kii bi. Mm. si si photo bi. boobu. Mm. waaw parce que mom lay mom lay révéler quoi mom mom mo moo euh, euh, nasaraan la. Euh, maam maam gëmoon yalla gëmoon gëmoon yent bi sama borom def. manam mm. mu teud ba guddi neena na xaaja guddi mu mel ne borom da ko woo si yoonu diine yoonu islam dem ba tuddee ko sama maam Jaara Buso waaw léegi bi ma nettalee histoire am ak yooyu ak ni ñu nekkee woon ndax maam sama soxna loolu moom euh, ñu dem ba si kii ma ma fedd ci way noonu daal ko génnee moo waral la révélation boobu maam foofu damay wax boo dégloo euh, album bi di nga si gën a comprendre quoi. waaw album bi moom détail détail na ko quoi. très bien Zikar si foo si toll. moom saa su la loolu tam ma ci santaat sama sëriñ bu baax sëriñ Aziz Fall. Mm. ndax maanaam bu dul woon loolu tey jii xëy na du ma xam sama vrai yoon ni am naa wàllu si musique quoi. Mm. ndax euh, Zikar léegi bu masaan bu masaan fekkee sama cant fii Dakar dal na may wal waal bëgg naa ngay ñëw bu di jappalé gaay yi gaay dañ manke plus que sikarkat lool fay ñëw waye légui fu tonni ni jamono ji tarkaala na xalé yi mag nañ mëna ci sikar lool ku melni Masamba sama mbokk talib mu mm. ma koy siar bacc Masamba maam Amari Mbay ñoom ñëpp kat yi mag yi ne foofu macha allah leen siar bu ma ma jafe na jafewul nga ci sikar dugg ci musique moderne trop trop jafe woon na mais mais si man man jafe woon parce que dafa nekkon si man ko man quoi mm. franchement dama ko dama ko ko nañ ne milieu artiste la uh-huh. au lieu dis man la kay woy na gaay fa nek yëpp asiko bandier eh. asiko yi ah, faxas faxasiko may la di char ni leen di uh-huh. waw ñun waaw ñëpp uh-huh. man na man fofu la juddo seen biir waa faxas xam nga ñu di siyaar ñom Bia Dango Pape Sarr mag mag ñu suñu mag yi fa nek dëgg la ndax la laa tàmbalee lépp waw di siyaar tam elage djouf mom mi nga fu eh, international waaw diko diko di féliciter ci lépp suñu suñu si mu nekk di ñaan def ak mom tamit euh, ben single waaw xeyna xeyna xëy na xëy na mais bi la bëgg def ak moom bi ma woy léegi nii jigéen incha allah très bien moom single am na solo donc loolu dinañ ci euh, gën a yaatal ci kanam tuuti incha allah ñu ànd ak waa liggéey ba tey quatre ans d' expérience avec un album sorti en 2015 composé de 8 titres euh, li muy gisee boppam nag mooy euh, wol musique jël afro jël mbalax jël acoustique daal di koy def un mélange pour mu jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy fans yi on est bien sûr avec des jeunes ñuy waajal seen journée d' ouverture du club art et culture du UCAO bu ñu waxee UCAO xel yi dem ci Saint Michel le 17 mars à la salle Daniel brotier à partir de 14 euh, h donc le euh, l'art et la culture au service de euh, l'environnement que président du club art et culture du Saint-Michel Mohamed aussi mon vice-président ak Hassan Yad de com en tant que jeune ci femme parce que bu ñuy wax femme dañuy wax jeune hein donc mo bëggone rek ngeen jox ñu ci euh, sen appréciation euh, comment vous voyez la femme moderne la femme africaine euh, surtout ci élément bu ñuy fête yu melni hein journée internationale des droits de femmes. est-ce que ñom réellement xam nañu bés bi lan la wundu ak est-ce que en ngi taxaw. ok merci monsieur Nicolas tout d'abord ma ngi nuy ñëpp et di am contentement téw fi bon suñu yaay mom ñëpp xam nañ la femme voilà lim ëmb dafa bëri ñoom ñooy suñuy yaay ñooy suñuy jabar. Mhm. ñooy suñuy sœur. Mhm. tey jii ku la ku am lu la metti yow mii comme ñun nekk ay jeunes. Mhm. chaque fois bu ñu demee si biti def ay bêtises yu rey bu ñëwee si suñu yaay la ñuy wéeru. xool sax suñ papa. ndax ñoom tabaarakallah. mais suñu yaay paa bi bëgg yow quoi. te mère bi mais yaay moom mooy kaas sax ne bàyyil ay xale lañ. yërmande bi day ñëw. est vraiment. Euh, tey jii nañ le leadership féminin. très bien aujourd'hui dans le monde gis nañ ni au-delà ñu nous, ay femmes de ménage boo demee ci entreprise yi vraiment ñom ñu ngi bëgg. Mm-hmm. di diriger. Mm-hmm. et que ñun aussi dañ leen di accompagner ci loolu. Mm-hmm. parce que parité lañ wax. bien vrai que ni nak voilà amn'a ay limites mais limite yoy ci mentalité la. d'accord li nga xamné ne lañuy def suñu bop mhm. waye lepp lu diriger. Mhm. jigen mëna ko diriger très bien parce que amna euh, compétence merci beaucoup euh, on y reviendra euh, tout à l'heure bien sûr pour parler de leur journée d'ouverture du club art et culture UKO fofu Saint-Michel mu le 17 mars à la salle Daniel Brotier à partir de 14 h à présent nous rentrons dans le vif du sujet pour l'actualité de l'internet appelée ActuBe. c'est maintenant. Yeah. Très bien, nous démarrons la première actualité de l'Internet si on se réfère à Sénéweb. Manifestation de l'opposition, de Croix, Oumar Sarr, Toussaint Manga, euh, tous interpellés, n'est-ce pas Mohamed tout à fait Ben, opposition Bo euh, dafa thème pour déléguer fi ki le ministre de l'Intérieur Ali Aly qui Ndiaye gis nañ réaction bi nga xam ni am nañ ko ginnaaw bi mu demee ci émission bi ci 2STV avec Pape Alé wax lépp li engagement politique au sein du de l'APR et auprès du président Macky Macky donc loolu créé benn réaction euh, tey nañ benn marche dem foofu ci euh, ministère de l'intérieur foofu ci Ndakaaru euh, taxaw fa ay ay ay takku der ñëw fekk leen fa leeral point net sax mi ngi andil ay ay tektal ci lolu parce que amna ben arrêté bo xamni euh, préfet daf ko génnee démb lañ ko publier jeudi 8 euh, arrêté bobu fësal ni dañoo interdire manifestation bobu donc ñom euh, dañoo dañoo dañoo xex ak li nga xamni mom la administration dogal lolu taxna na takku der yi fekk leen fofu daldi zane sànni ay grenade la waaye également ñett ñi nga xam ne fës nañ euh, ci opposition bi ku ci mel ni euh, Oumar Sarr bu parti démocratique sénégalais Mamadou Diop de Croix ak Toussaint Manga ñoom ñu daal di leen di teg loxo euh, Seneweb mi ngi leeral tamit it que ni maître Madické Niang moom dafa mujjee daw làqu ci biir ministère des mines pour daw li nga xam ne moo nekkoon grenade lacrymogène yi ñu ko doon dund tey foofu ci Ndakaaru très bien donc grenade yooyu nga xamante ne jot nañ leen ko sànni waaye ay xale ñoom ñoo ci gën a sonnale parce que école bi nga xamantene ne moom moo nekkoon wet ba euh, fofu le grenade ba dugg sonal len lol euh, donc tay ñu ngi wax marche ñi wax ne marche dafa bok ci li nga xamantene moy euh, ci constitution c'est-à-dire mooy dañ leen ko wara mëna valider le pourquoi ba tay à chaque fois ñu gis ne parti démocratique sénégalais bo amé marche bo xamantene ne bëgg na ko bëgg bëgg na jëmmal préfet wala autorité yi di leen ko téré le pourquoi ci li nga xalaat mmh. damay ñëkke ni cruauté du destin wala ironie du sort mmh. Euh, parce que tey jii parti démocratique sénégalais ñoom ñoo dem place Washington. Hmm. ni dañ fay def marche wala dañ fay toogaanu ñaxtu. bu ñu fàttali ni en juillet 2011 Ousmane Ngom moo fi génne woon arrêté boo xamante ni dañu woon lépp lu jege ci place boobu la bu fa kenn jege. tey yow li nga xamante ni yow yaa ko fi génne woon démb tey loolu moo la dab donc loolu rek dafa war a doy tey jii way politique yi ñu xalaataat que ni tey jii que ni nguur saxul dañ fiy jaar dem. continuité état dafa am tey booy posé ay actes yoo xam ne boo koy posé na doon mhm. yoo xam ne ëllëg ak si yow doo bëgg a ñëw sax pour di ko dénoncer malheureusement nag tey loolu moo dal parti démocratique sénégalais keneen mhm. boo ko fi Ousmane Ngom jëlee ñu bare bari naqarlu woon nañ ko ñu ni ñoom lool bokk na ci loo xam ne dañuy préserver li nga xam ne mooy intégrité waaye tamit fexe ba institution yi fa nekk kenn bañ leen euh, sonal ñi fa nekk tey jii ñoom ñi doon bañ loolu tey ñoom ñoo ñëwaat bëgg a dox bëgg a toog foofu wala def leneen donc dafa nekk loo xam ne dafa doy waar man way politique yi bu ñuy jël des fois yenn décision yi je me dis que dinañu réfléchir mûrement balaa ñu koy def parce que tey jii yaa ngi ci camp bi ëllëg ak si biir wala yaa ngi bañ mbir ëllëg ak si biir nga dugg ci biir nekk ci état dëgg googu dab la nga xamatoo nooy def nga delluwaat ginnaaw c'est sa kàddu kàddu ngi dafa am solo mhm. boo xasee joxe ba pare da nga joxe engagement engagement personnel personnel la boo demee ba bëgg a violer loolu seulement il faut regretter le fait que rek tey jii dem nañu ba mu am ay répercussions dem ci ay xale yoo xamante ni dañ doon jàng ci ay ay grenades lacrymogènes fekk leen foofu. d'accord buñ ci gaañoo mu di loo xamante ni du lu kenn mën ko rafetlu. très bien nous restons toujours avec euh, Sénéweb manifestation de l'opposition des lacrymogènes envoyés dans une école trois élèves évacués. école mamiya Yacine Diagne précisément nekk foofu si donc ñoom itam euh, li ñu woowee dommages collatéraux noonu lañ ko mën a tuddee parce que euh, nekkul ñoom la tiir yooyu visé woon waaye dafa mujjee egg foofu donc école boo xam école primaire la donc école élémentaire ñi fa nekk si tranche d'âge 14 ans ak loolu lu lu tout maximum que hmm. nous am donc euh, euh, grenade lacrymogène fait que leen foofu daal di sonal euh, donc loolu itam amené que xam ni site internet yi wax nañ si lu béré béré béré bëri ndax dafa nekk loo xam ni nekkul loo xam c'est souhaitable hein. école élémentaire xale yi nekk si cours bi di foo nekk milieu scolaire il devait se sentir en sécurité loolu itam amené une information relayée toujours par nos confrères de Seneweb très bien nous ànd avec madame Diallo ah hein, Sok mu en tant que journaliste naka nga gisee marché de l'eau l'opposition muy parti démocratique sénégalais ay lacrymogène moo leen ci mujj fekk mais aussi am na ay dommages collatéraux lu tu mel ni euh, xale yi nga xamante ne seen école soriwul woon dara foofu lacrymogène du dugg fa. Euh, dañ koy ñaawul parce que bo xëyee yóbbu sa doom école. yaakaar nga ni mi ngi ci environnement bu sécurisé. Mhm. que dafay jóge école ñëw ñibbisi ci kër gi euh, mu ci ayib mais lii nii luñ ci war a posé wu du ma dellu si si lu Moussa wax. parce que Mansour wax parce que euh, point la boo xam ne ñëpp war nañ ci bàyyi xel ba nga xam ne acte booy posé tey na nga ko posé. na nga ko réfléchir mûrement réfléchir parce que loolu aussi daf ñuy manqué. Mm-hmm. dañuy jiital intérêt politique du moment. personnel. intérêt politicien. Mm-hmm. du moment. Mm-hmm. ba dañuy fàtte ni suñu société day dox day évoluer loolu moom je pense que euh, débat la boo xam ne mi ngi suñu kanam te war nañ ko affronter de manière sereine mm-hmm. et puis tirer ci nag les leçons qu'il faut mm-hmm. mais man li ma ëppal solo mooy xale yi tey ban leçon qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse à ces enfants là faites leen seen biir école ça veut dire leur intimité mm-hmm. carrément def leen li ñu ne ñan ñoo def ñu ne leen politiciens yi. Mhm. ak policiers yi. Mhm. policiers yi nga xam ni ñoom ñoo yor seen kaaraange. Mhm. ak politiciens yi nga xamante ni ñooy teg politique yi pour xale yi mën a évoluer ci environnement ak cadre boo xamante ni. dina leen def ay mag dina leen def ay nit yu accompli def leen ay personnes responsables ba demee ñu mën a taxaw téye société bi man foofu laa amee problème ci ci mbir mii xew xale yi nañ leen bàyyi xel mm. acte yi ñuy posé mm. dafay répercuté wu ci xale yi te lan lay bàyyi ci ñoom comme jeexital pour suñu société très bien madame Rougui euh, Bousso euh, ban jàngat nga ci def en tant que politique parce que balaa ñoo ne politique nous sommes d'abord des citoyens sénégalais toujours jàngat boobu lañ koy njëkk mu nekk quelque chose bu nekk à la base mm. parce que euh, tey démb mënul nekk 8 mars tey mu nekk 9 mars ñu ne ay góor ñoo jiite lu mel nii. voilà parce que da ngay imaginer tey jii maa leen ne happy birthday. Mm. léegi da ngay imaginer tey jii ay xale ay tout tànk ñoom ñoom ñooy diriger ëllëg société bi. Mm-hmm. lu am solo. Mm-hmm. tey jii ñoom marché ñu doon bañ yi tey dafa def effet boomerang dafa delluwaat si ñoom. est-ce que war a nekk ci fayantoo aussi. fayantool parce que xam nga comme nu ko sama maam doon wax. ko man mi sàmba pulloog mais ko man mi gureel fulbe foofu nga ne da ngay ne lan la def sàmba pël mhm. mais luma def dëkk bi pël yep kon sik bi ci yow la ne parce que mënuñu ne ministre de l'intérieur bu fi nekkoon bi arrangé wu leen mhm. ñu ni lan len kenen ñu ne kenen tamit arrangé wu kan mo len arrangé on demande quelqu'un de neutre quelqu'un de neutre ko bokkul ci benn parti politique kenn mënul baña neutre Sénégal mun nañu wut un un ministre de ci sénégalais yi wala ci dégginu sénégalais ñu xam ne kii bokkul APR bokkul PDS. mais dénkaane ka nga wóolu. Hmm. dénkaane ka nga wóolu. d'accord ñoom ku leen doon interdire marché bi ba ne périmètre boobu yëpp nañ ko lii kooku si ñoom la bo hmm. bokkoon. Hmm. te nul n'est au-dessus de la loi. d'accord mënuñu interdire da nga ne yow sénégalais nga man li ngeen interdire man dama dama ciy dem. loo ci am yow yaa ko may sa bopp. mais le plus souvent ay du yem ci bopp borom. d'accord parce que xale yi dem jàngi seen waajur yi xam-xam lañ leen ne woon nañu dem jëli nga fekk leen fu ñuy wutee xam-xam dafa sàkku xam-xam mu dem ba jural leen loraange tey yooyu waajur yooyu bu ñu leen woowee ñu ne leen seen doom dafa demoon sàkku ji xam-xam mais mu ngi mujjee hôpital

bisimilah man li may njëkk def mooy mas wu xale yi nga xam ne ñoo fa am loolu leen naqar yi xam ne seen yoon neew ci seen yoon a ngi sax ndax ñoo bokk réew mi waaye tamit ay magum jëmm di def loolu ñoom war na war nañ mën a sóor ni nekk noonu école la déjà parce que tamit état boo nekkee si état euh, foofu maa ngi wax sunu sunu mbokk policiers yi boo nekkee si état war a njëkk def sa vision balaa ngaa réagir war nga visionner fi nga nekk xool ba pare xam nga nii ndax parce que tamit. même lu lu Buri Sokk wax di ko nuyuwaale sama sœur na xam naa ko bu yàgg. Mhm. di la souhaiter une belle carrière si sa sa sa métier. Mhm. allah ñoom war nañ mën a ñoom déjà am maturité boo xam ne ñoom fi ñu nekk xam nañu place bi am na ay élèves déjà. Mhm. ñoo xam ne même gars yi dañuy manifester que ni xëccoo la. ñoom ñoom ay ay kii lañ gars yi ñemewuñ leen. mun nañ avancer ñoom arrière leen ba ñu dépasser fa ñu gis a soog leen mën a disperser mais bul ñëw nii rek tak rek bëgg leen. xam nga. Mm. parce que loolu laa dafay mel ni amul repérage. dafay mel ni euh, comprendre ñu secteur bi ñu nekk exactement. lan moo fa nekk ñoom normalement ñoom ñoo ñu war a protéger. d'accord fekkee ñoom ñi protéger ñoom. Mm. amatuñu temps wu xool ñu ñun. Mm. kon dëkk bi jaxasoo na. may xool tam suñu mbokk politiciens yi dinañ xam dara jëru jaru fi xëccoo mhm. maanaam gëm yàlla rek am solo mhm. maanaam bu yegsee léegi ni du la fekk waaw wala wasi bilaay ñaanal luñ ko kenn mais mhm. ko teg ci taalibe ndax tam réew mi taalibe rek moo fi moo dara moo fi doxal maanaam yar ak teggin suñuy maam ci loolu lañ yar mais léegi gars yi boo dama seetlu léegi gars ñoom li ñu li la ñuy def la ñuy jéem a forcé di ko jéem a imposé te sóoruñu jeunesse bii di ñëw mhm. ndax ñooñu ëllëg ñoo yor réew mi ñooñu leen sóor xel bu baax très bien c'est important na quoi jërëjëf kooku mooy euh, waa muy doomu HLM bàyyeekoo ca Mbour tey mooy suñu invité ñuy waxtaanee musique Alaaji Sala Bigué Ndiaye jamono ji nii ay euh, kàngam yu ci mel ni euh, Decroix ku ci mel ni Toussaint Manga ak Omar Sarr ñu leen teg loxo ndax lan nga xamante ne moom mooy marche bi ñu a jëmmal yóbbu ko ba foofu nga xamante ne mooy buntu ministère de l'intérieur est-ce que waruñu Euh, par rapport ak situation bi am neneen nu ñu leen di gérer lu dul di ci sànni ay lacrymogène ba ay xale euh, di ci jëlee ay jafe-jafe. waaw xam nga image bi kooku buñ ko wanee da ngay rus da ngay rus parce que ku ne xam ne ne xale euh, li xajul ci moom mais dañ naan doole gàññe lu mu yëgul. Mhm. ñoom ñii les politiciens ñoom ñoom lii leen buggoon ñoom coow lii leen ci bëggoon. ñu japp ci ci ay def ay kii moom bur bu suba mom lañuy togué nak ci débat yi parce que politiciens yi ñom ni lañuy ñuy dañuy fexé créer def dara après buñu démé ci débat yi nak ñu am luñuy argumenter té gis nga Nicolas hmm. réew yaakaar naa ne man dama japp ni même bo dé opposition nga nek da nga bëgg réew mi moo tax nga ne ki nek pouvoir nim ko tayé baxul nan ma jox dama yaakaar ni loolu moy li nga xamni moy li nga bëgg da nga japp ni ki nim mu baxul man suma ma dina bax mais lu fi jar li laa xamul. parce que nit yéen bu fekkee da ngeen ay ay opposant ngeen Ousmane Ngom décret bii moom bi mu nekkee ci ñoom comme ni ko Mansour waxee. Mhm. dañuy fii bu ko kenn dépassé. temps yi am nañu marche mais dañu leen may nañ leen ba fii ñu dem marche tranquillement mu jeex ñu couvrir la ñu dem mais pourquoi ñoom ñu ni pour que dañuy jéggi dem fi nga xam ne foofu la ñuy bañ kon donc bëggatuñu marche et puis que ñoom mën nañoo fexe fexe fexe ba Aliou Ndiaye démissionné <laughs> bit bi xam nga bu wax nii rek. gis nga rafetal beeg laay raay bi nañ ko bàyyi ñoom mënuñoo fexe ba Aly Ngouille Ndiaye démissionné seen marche bi mënuñoo fexe ba Aly Ngouille Ndiaye démissionné même bu ñu leen bàyyiwoon ñu dem fa dañuy toog mu tey ministère de l'intérieur def lan. itam fi xale ay kilifa la ñu ñoom dañoo war a xam dem ci élection présidentielle. ñu bëgg a am benn transparence ci carte d'identité. Nicolas billaay mën na ñëw indi ku neutre ku bokkul benn parti mais ba du neutre yàlla la gis nga ni ko nekk da nga ko bu fekkee li mu yore baax bu ñu demee ba élection jot nga sanctionné ko. d'accord mais pas lii Dakar dafa xat. Hmm. am na loo xam ne xaju fi. Hmm. école yaa ngi fi société yaa ngi fi. Hmm. kër yaa ngi fi te xale yi nga xam ne ay policiers lañ ñoom ay xale lañu ñoom li ñuy bëgg sax mooy def loolu. dañ naan noo paayee xaaral ñu escanté leen. dóor ay lacrymogène tey ay maître ma dikke ñaar di daw ñi kii ñoom dañuy ridicule parce que dañuy dem ba dañuy ñàkkal bopp seen fayda mm. kilifa dafay def yi fu kilifa mm. man je ne suis pas là pour Macky Sall je ne suis pas là pour l'opposition je suis pour le Sénégal je suis communicateur mm. traditionnel mais ñoom ñoo war a xam ne ay kilifa la ñu bàyyi fi xale yi ñuy def ay mag lañ yoo xam ne dañoo war a joxe exemple bu baax mais lii ñuy def nii rafetul jekkul jaaduwul ñi ngi lor nag doomi jàmbur très bien voilà yéen ñi nga xamante ne UCAO ngeen nekk Saint-Michel lacrymogène yi yegg ci yéen non lacrymogène nag C'est jotul yegsi ah. mais nek na lu ñuy ñaawlu bu baax. Hmm. parce que Sénégal y a un problème définir politique. politique c'est l'art de gérer, la cité. d'accord. mais ñun c'est comme si l'art de gérer ses propres intérêts ou bien ses intérêts. de se faire beaucoup d'argent. c'est l'art de de se faire beaucoup d'argent. Hein. de s'enrichir. et hein. donc euh, nañ moytu lolu d'accord. et policiers ñu leen di ñaan nañuy def nank

Hmm? est-ce que ah, mais d'accord absolument merci beaucoup très bien nous rentrons dans le vif du sujet pour parler CRD quand la transhumance menace le maquis Nous euh, madame euh, Bousso mi membre CRD euh, Euh, politique ba pare euh, pourquoi ànd ak Macky. salaamaaleykum man ma nuyoowaat encore. comme que politique ngeen invité su may politique damay nuyoowaat. dëgg voilà Nicolas maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal li ma dugal ci Macky li ma dugal ci Macky man sax xaw ko yàlla la. yàlla la moo la fekk Grand Dakar ne la càpp yóbbu wala parce que man j'étais dans le privé. loolu tamit ci la bokk. <laughs> lool sax xalaat moom mooy base bi. voilà parce que euh, lenn moo ma dugal ci Macky man je suis Haalpulaar nedd ko ban da mënuma ko bañ li mbokkam la am. Hmm. je ne suis pas trop ethniciste pour wax sama mbokk rek laa bëgg. Hmm. mais moo tax ma dugg ci politique. Hmm. man nag ba mu nekkee ci Ablaye di man je travaille dans le privé. ba mu tamit di génn tamit di dem di dugg ci opposition j'étais dans le privé. ma jóg ànd ak moom. Très bien. d'accord très bien on y reviendra tout à l'heure le temps hein. donc nous euh, madame euh, Diallo euh, Bourri Sokou, qui est une journaliste nous femme média médias. Hein. waaw pas évident du tout mais vous arrivez à faire le contraire ou montrer le contraire naka ngeen femme on, on fait pas le contraire parce qu'on ne, euh, on ne redéfinit pas les règles, mm. on ne réinvente pas, la roue. D'accord. Mm. Mais on essaie mm. quand même de gagner notre place. <coughs> Ça veut dire euh, rédaction yi ñu dañ ci ak suñu ay nawlé il y yalla def euh, dañuy euh, am les mêmes formations université lañ ñuy former. jóge université dem ci école euh, formation journaliste yi même professeurs yi ñoo ñuy jàngal même cours yi la ñuy def même examen yi même diplôme la bu ñu génnee amaana sax jigéen ñi ñu ngi gis un deux trois quatre cinq yëpp jigéen ñi ñooy raw mais mën nañ jël dernier ba <laughs> ngeen nekk ci rédaction mais moom la ñuy moo leen di njëkk a am liggéey moom en tout cas moom la ñuy euh, njëkk a proposé poste bien que poste yi emploi on le sait dans ce pays les conditions sont telles que trouver un emploi aujourd'hui est extrêmement difficile mhm. mais nous li ñuy wax rek moy lolu situation est bu amé nañu def égalité des chances nañu may ñep sen chance mhm. ki gëna compétent nak pour poste bi nga la nañ ko ko jox parce que aussi on est partisan de euh, celui qu'il faut à la place qu'il faut. Mhm. euh, on n'est pas trop trop Nous avons une place ba nga xamante ni euh, ku ñëw rek ñu ñu dugal dañu duñu li nga euh, parce que tey ji bu ñu buggee parce que médias yi ni ñuy doxee euh, ni ñuy traiter information et société bi ni on a besoin ay hommes des médias ak femmes des médias yi nga ils sont formés aguerris ba nga xamante ni préparé ni ci question yi nga xam ne mm. société mm. mais ngal la bu ñëwee rek les mêmes chances góor mm. comme jigéen Déjà, de me permettre de rendre hommage à toutes les femmes. Ce sont des femmes de médias, les précurseurs. Je pense en l'occurrence à ma marraine, la marraine de ma, de ma promo, anne Bay Derneville je pense aussi yeneen jigéen soxna Dieng Mbackeeg ñeneen ñeneen ñoom mm-hmm. peut-être ñoo xamante ni tey ñoom ñoo poussé jigéen ñi incité leen ba jigéen ñi ñemee dugg ci dugg ci li nga xamante mooy métier mi mm-hmm. mais dafa am lu ñu seetaan léegi ci muy xew-xew bu am Dakar comme par exemple euh, dafa amoon grève bu am wala marche mm-hmm. gisa lakk na leen jóg euh, bu di ci genn wàll est-ce que situation adaptée yu mel noonu la euh, yenu na maanaa tey ji nga jël jigéen yóbbu ko mu dem ci reportage ci wàll yu mel noonu est-ce que du foofu moo leen di nekk frein bi ci lu ëpp ci Eh, mm. ngir mën a exercer mën a am essor ci métier bi. loolu prétexte la. man def naa 23 juin. def naa euh, ba ñuy dóor lacrymogène yi ci zawiya ba. def naa ko kenn mënul woon nooyi foofu. loolu pour man ay prétexte la. parce que tey jii métier boo ciy dugg am na ay risques. y des risques inhérents à tout métier. Mm-hmm. que ce quel que soit le métier loolu. dang koy transcender parce que bo ci dugg du loolu ngay xol hmm. bu don loolu kon ñu bari dinañ tok seen kër muy goor comme muy jigéen métier bo gis Amna risque ñun xooluñu loolu bu ñu xol ci loolu amna lo loo vrai c'est lié à notre condition de femme. Hmm. Hmm. bu ñu tolloo par exemple ci li ñuy wax maternité xeyna amna yo na du ñun mais suñu condition moo ñu ko laaj xeyna ta bobu loi bi. alhamdulilah encadré nañ ci dañuy ñaan rek nit ñi mën a topp yoon boobu ba li ñuy yoon loi bi may ci congé de maternité yeeg ci repos yeeg ci yooyu ñu mën ko respecter. Mm-hmm. mais bu ñu taxawee ni dañuy dem ci terrain bi ngalla buñ ñu utal ay prétexte jigéen nga doo mën a daw ak doo mën a déedéet parce que boo génnee da ngay gis sa yenn moroomu jigéen yi bitim réew. nekk ci condition yoo xamante ni dañuy bàyyi góor ñi sax ci ginnaaw kon loolu ay prétexte la rek pour man ba ñu war a mën a pousse jigéen ñi indi indi góor ñi nañ leen bàyyi ñu ñu dem ak seeni capacité nañ leen bàyyi ñu dem ak fi leen seen fit ak seen jommay prétexte la wala du prétexte ci genn wàll bu ñu jógee ci li nga xam ne mooy le travail de terrain souvent dafa am loo xam ne day xew au niveau des rédactions mhm. comme par exemple nous nous arrive d'être là à huit heures du matin et rentrer à vingt deux heures voire vingt trois heures mhm. aujourd'hui bu fekkee yow jigéen nga mhm. est-ce que loolu di nga ko mën a mën nga nekk un femme nga nekk une femme au foyer war a mën a gérer sa kër war a mën a gérer li nga xamante ni liggéey bi nga war a def est-ce que liggéey bi àq bi mu ci war di nga ko mën def Mm, lolu bokk na ci contrainte yi nga xamante ñoo gëna a encore. jigéen ñi ci seen liggéey du du journaliste bi rek. Mm-hmm. je parle d'une manière générale jigen femme bi liggéey au au bureau. Mm-hmm. ak journaliste bi nekk ci rédaction yi xëy na ñun suñu liggéey nu mu tëddee ça veut dire que c'est un feu continu. ça veut dire ni ngi ciy nekkee ci bëccëg bi noonu nga ciy nekkee ci guddi amaana kële moom chaque jour day xëy 17 heures bu jotee mu wàcc dem ñibbi mm-hmm. mais yow di nga di nga ne ci yoon bi sax événement am sax nga dëppaat mm-hmm. parce que actualité oblige mm-hmm. mais ñun loolu xam nañ ko te loolu dañuy ñaan ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir këru liggéeykaayu média yi mhm. ñu bàyyi ci xel ay contraintes la yoo xamante ni jigéen bi tegu ko boppam mais c'est la nature elle-même qui a fait jigéen moom lañu dénk ce rôle social dénk ñu ko góor mhm. jigéen lañ ko dénk parce que yow góor bi boo xëyee sol nga say daal jël sang nga ba set sol nga say daal dem liggéey yow joxe nga dépense ba fa nga yem yow xalaatoo dépense boobu nan lañ koy def yow xalaatoo dépense boobu fan lañ koy dugal mais yow loo xalaat soo may su ma yegsee rek est-ce que añ bi pare na mhm. wala est-ce que reer bi pare na jigéen boobu elle est obligée pour mu euh, remplir ce rôle social là mu déléguer tâche yooyu parce que dafay liggéey mhm. elle va déléguer à sa à sa domestique ñu taajal domestique dire que dépense bi hmm. euh, toggal ma ci lii tey defal ma ci lii hmm. parce que situation moo économique bi ñuy dund moo mel jigéen waratul toog hmm. jigéen dafa war a dem liggéey ne serait-ce pour moom ak njabootam ak ay wéyjuram ya ko dugaloon école yaakaar ci moom ne serait-ce que pour l'or parce que tamit nit am sa dignité fu muy toll foo xam am soxla yoo xam ne doo ko diis kenn yaa koy fajal sa bopp loolu moo tax jigéen ñi di dem di liguey mm-hmm. mais ci kaw liguey bobu ñu am ay contraintes yo xamante sen rôle ak fonction sociale bi ñuy jouer ci société bi mo mm-hmm. len ka tek motax ñepp dañ ci wara japp jàpp ba jigéen ñi war a mën loolu oyof ci ñom yomb ci ñom mm-hmm. ba fiñ len di xaar ci kër gi seen jëkkër di leen fa xaar seen di leen fa ki leen di liggéeyloo tamit di leen fa ñu ñetti très bien Mohamed. au-delà de de contraintes yooyu ngay lim nga toujours entre vie euh, professionnelle bi ak euh, la vie privée à la maison war géré ñaari mais euh, dañuy dégg également yeneen difficultés yu bëri yoo xam ni dañ koy évoquer presse ku nekk xam na ni dafa nekk milieu boo xam ni dafa sensible ci wàllum liggéey phénomène société mm. mais également on parle beaucoup de promo canapé par exemple nekk jafe-jafe yoo xam les gens peut-être ñu bëri duñu oser di ko wax ci kaw mais on en parle quand même c'est un fait qui existe mm. te lu si bëri suñu waxee promo canapé jigéen ñi lañ ciy cité mm. entre autres tentation bi ci nekk délicatesse bi nekk ci milieu médias média ak yoyu ndax jàppoo ni frein euh, mhm. par rapport à jigen mën positionner en leader ci euh, secteur d'activité mhm. ah, en 2014 j'avais donné une interview dans ce sens on me parlait de promotion canapé et j'ai demandé et les mouchards est-ce qu'on en parle mhm parce que jigen la rek. Mm. ñu ne promotion canapé. Mm. wa gol ñi nga xamante ñom ñoom la lu defuñu lu dul. Mm. fu patron bi genn ñu ne ko diw de yëngal lim fi def. diw de diw de li et ces mouchards là on en parle personne n'en parle nañu bayyi euh, les stéréotypes. genre yooyu stigmatisation yooyu. parce que jigéen euh, il n'est pas dit que Jigen bu ñëw entreprise elle est dans une position de faiblesse certes comme gour, buy wut tu es dans une position de faiblesse boo nekkee ci stagiaire wala boo nekkee ci contractuel tu es dans une position de faiblesse góor la comme jigéen mais pourquoi nous ne jigéen bi bu amee poste bi rek parce que xëy na promotion canapé ñu ñu ngi ciy xool aussitôt loolu mm-hmm. je pense que yooyu suñu bopp la nekk dañ ko dindi c'est une déconstruction que nous devons faire et et penser plus à la valorisation et à la promotion du potentiel féminin qui est là bañ a rek les yeux sur ay promotion canapé góor yaa ngi fii def yu gën a mm-hmm. mais on n'en parle pas personne ne le dit mm-hmm. nañu jéem fi ñu leen dugal rek mm-hmm. tiroir yi ñu leen ranger rek ñu ranger ñu si tiroir yooyu Alaaji Sall bi wax na lu parce que dafa am métier yoo xam ne jigéen mën na ci mën na ko bokk ak góor mais am métier yoo xam ne jigéen mën ko bokk ak góor parce que jigéen dafa am nu ko yàlla bindee góor dafa am nu ko yàlla bindee mais bu dee ci wàllu xalaat xelu jigéen sax moo gën a ñaw parce que jigéen moom yàlla may na leen xel. Mm. buñ la xalaatalee sax boo ci jaaree mu da ngay am da ngay réussir mais bu dee ci yenn doole yi comme lu jëm ci wàllu ouvrage tey jigéen bu nekk maçon. Mm. dafay métti. Mm. même jigéen ñi nga xam te dañu nekk ay policière nekk ay gendarme. des fois mécanicienne même. même dama leen di fekk non non ñu nekk policier ak gendarme. les pénitentiaires dama leen di romb ci surclasse mais dama leen di yërëm. day tàng mais da xam ne ñii jom la demee mais métti ci côté boobu la ñuy waxee mais amul lu góor di def te jigéen mënu ko. mais dafa am yoo xam ne jigéen mën na ko ak yoo xam ne jigéen mënu ko. foofu la ñuy waxee. bi ci des aussi psychologiquement ñun dañu def ne rek jigéen dafa war des ci kër gi. ñun loolu parce que loolu la ñu fekk suñu maam yi doon ko def suñu papa yi doon ko def xëy tey jamono changé léegi góor gi day xëy jigéen gi day mais du tere jigéen ñi am na ñoo xam ne ñu ngi xëy comme ni seen borom kër di xëy te teewul dara manqué li ñu war def seen wu ci mais daf ci am góor ñoo xam ni ñoom la la seen gàmmu lañ lañ mënta wër parce que góor bi nga xam ne tey jii am na soxnaam bi mu koy fekk soxna fekk na soxna si di jàng bi soxna si di jàng leer na ko ne soxna si bu jàngee pare liggéey la bëgg. Mm-hmm. parce que jàngul rek pour jàng. léegi yow nga ànd ak moom ci loolu topp ko moom ci dem ba takk ko nag ni ko nag léegi liggéey bi ngay liggéey wala jàng bi noonu jàng da nga koy arrêté foofu la problème yi di commencé bu nu demee nag ba ci biir commencé am doom léegi doom jooju foo mu am bon ci kër gi mm-hmm. parce que soxna si mi ngi liggéey mm-hmm. même bu fekkee soxna si dafay tibbe ndi joor ak càmmoñ góor moo war a dëkkal moo war a dëkkal moo war a dundal moo war a wodd moo war a sàng jigéen même bu lay xo yokkalee xorom sa kër da koy neex mu def ko bu ko neex du ko du ko def mais nag bu fekkee dañ ko teg ci cadre jàppal ma jàpp ñu ànd ànd gor du am problème mais bu dee dañu ànd àndu ma maa la yilif yaay lii walla jigéen tam bu la sëf jëkkër ne benn nga ni ko mil nekkin ba du neex bi ci des na aussi fi may fi may fi may daanele mooy jigéen lu jooyloo doomam jaral na ko xuloo bu kontaanee fecc lu leer laa lay wax. bu kontaanee fecc lu jooyloo doom jar na ko xuloo bu tiitee daw. est-ce que tey jii bu ñu amoon benn président de la république bu jigéen tey jii. ñu wax doomam tey jii benn benn affaire mu jooy tey sunu média bi nan lañ koy nan lañ koy médiatiser. Hmm. fu xóot laay waxee nag. a baax. bi wax ni du forme ñoo dégg ñoo la dégg profond laay wax. bu ñu nee président de la république jigéen la ñu toog ñu jekki ji am benn bu mu ni bërit jóg daw. Hmm. moo tax ma ne. koo xam ne bu kontaanee fecc mhm. bu tiitee jooy mhm. <laughs> ngeen baal ma de lu jooy la doom jar na ko xuloo est-ce que kooku aussi balaa nga koo dénk balaa nga koo dénk non non walaay du calmant du calmant <laughs> mais daanelal très rapidement c'est-à-dire c'est-à-dire xalaat la rek boo xam ni ndax dañuy est-ce que jigéen ñi di lii mhm. la ñu xam ni nañ ko war a def ñu xam ne du leen sonnal du leen gaañ ñu yem ci ba jëmmi jamono nag jamono mun na changer bu ngeen waree dem nag ci escalier bi ci étape bi ngeen dem ci très bien est-ce que est-ce que tamit du un problème d'organisation en tant que femme yow tamit parce que femme média lañu wax wax mais femme politique aussi euh, parce que contrainte yi léeg-léeg dina xaw a nuroo euh, ndax activités yi ni muy demee la léeg-léeg guddi gi sax mooy gën a jax sax que bëccëg bi euh, parce que ça dépend ci actualité bi lu mu doon mais est-ce que laajul beaucoup plus d'organisation yéen ak ñi nga xamante ne ñoom ngeen di bàyyi ginnaaw en général yëkkati sa loxo s'il vous plaît yëkkati micro bi s'il vous plaît maa ngi félicité mm. doomu grand kaala day dóore nag quoi ah, sama sœur Buri parce que Buri ak Rugi benn la waaw voilà mu nekk femme de média man ma nekk femme politique donc euh, femme de média femme politique femme au foyer d'abord parce que jigéen suñu maam yi ci biir kër yi lañ doon nekk mais boobu ak tey du benn parce que boobu da ngay gis parents yi dañ doon wax la plus souvent juróomi dërëm xorom boo ko jëndee sama dépense baalu ma la ko mais tey jamono toll na foo xam ne doole yemul benn loxo mënatul àttan kër parce que comme buur yi nu mu ko waxee dina am foo xam ne ne yow yaa ko mën a fajal sa bopp sa ngor du la may nga ñaan donc politiquement aussi dafa metti parce que dañu ne média mais jigéen buy def politique moo gën a metti parce que déjà rek saali bii gi wax na ko ne doole yemul mais tamit nga toog ba yenn heure ci guddi ngay meeting wala di def porte à porte wala di dem ci ay région nekk ci ay oto loolu dafa metti si jigéen mm. mais yàlla moom moo ñu sàkkee noonu yéen foo leen amee doole rek ñun amuñu ko yàlla may nañu fa xel. góor moo am doole waxuma amul xel mais jigéen tamit am na xel. jigéen bu dem ci mbedd di bàyyi ay yërem malade mental. mun na nax góor bu ne weng taxaw. loolu yàlla may nañu ko. politique bi dafa metti tey. parce que nee na jigéen day jooy. nee na jigéen bu tiitee day daw. jigéen bu kontaanee day fecc. yooyu dëgg la. Mm-hmm. ñun yàlla moo ñu bindee noonu. mais am na benn moment boo xam ne am na jigéen loo xam ne ne mën na ko góor mënu ko. d'accord parce que président de la république mën nañ ko. parce que président de la république da ngay diriger donc. Mm-hmm. am na responsabilité mais ñun suñu biir kër yi presque palais la. très bien. parce que da ngay imaginer. d'accord boo demee. Ah. waaw buri nee na. Mm-hmm. buri nee na nga délégué sa sa domestique. wala nga délégué sa sœur. mais jigéen fu mu ñëwulee rek jigéen a koy remplacer parce que nga nekk ci biir kër gi sa jank jigen la sa sœur la même pantalon nga sol wala trey wala nga sol sa benn sa tenue muy blouse muy lumu les wala sa la wala sa koy parce que jigen mom mo mënul attan soxna ci xifna d'accord jigen mo mënul attan yaay xifna no mm. noo mënta doon boo sa se kër da ngay futteeku mm. nga femme au foyer bien sûr quand tu es sur le terrain nous on joue double rôle d'accord des fois je dis on joue plusieurs rôles mm. parce que gor bu démé jàmbaar ca waar ga la booy bu ñëwee ci kër gi ci canapé bi lay tëdd soxna si reer bi fu mu toll mais ñun bu ñu nekkee ci biti ay jàmbaar la ñun bu ñu duggaatee ci biir kër gi ñu gën a nekk ay jàmbaar te léeg-léeg ñu woo leen lu ci mel ni classe Mansour Sow mi léeg-léeg ñu woo leen naa leen eh, waa fan nga toll parce que man reeral gu ma de ah ñu bàyyi la nga def une dernière question à l'endroit de une dernière euh, euh, sax jot naa am li ma bëggoon a wax buri euh, contrainte yi jigéen yi souvent elles sont plus émotives par rapport ak góor ñi Euh, situation bu tey bi mu mu ci dellusiwaat rek tey jii peut-être ay jigéen bu ñu fa nekkoon mën naa am liggéey ba ñu war a def mën nañ ko bañ a def mën naa am tooy tooy xool dal dal leen mais ci geneen wàllu buri euh, dama gis tey jii une ruée des femmes vers les médias audiovisuels mm. ci genn wàll ñëpp jàpp ni que ni jigéen ñi tey ji bu ñu bëggee rek mbirum ñëpp rek bëgg def télé <laughs> souvent <laughs> euh, léeg-léeg xam-xam bi sax bi ci war a nekk du ci nekk mm. ñu bari gis que ni peut-être faut rejoindre un Nicolas li mu doon wax. Hmm. promotion sax du ben type de promotion mais ci ben gis gis len ma pour ma mën peut-être demain mën récolter genen wàll ci am ay raccourcis. xam nga euh, choix nit ki moom mënuloo ci sori. té hmm. tagat bi dañ lay tagat ci télé tagat la ci radio tagat la ci presse écrite. légui sax ya la presse en ligne. Euh, man bu may wax sama expérience personnelle je suis sortie du CC avec mon diplôme en télévision. Mais je n'ai exercé que deux mois à la RTS. Je suis partie faire de la presse écrite agencière. Depuis 2001, je suis à l'agence. Parce que Lolo la sentiron, tout simplement. Presse écrite la sentiron. Je n'ai pas voulu faire la télévision parce que je ne me sentais pas à la télévision. Mm-hmm. Bien que j'ai essayé la radio, mm-hmm. j'ai essayé tous les médiums. mais ba ma mes presse écrite je me sentais à l'aise parce que fii la gis sama bopp. fii laa sentir mon naa fi. li je bëgg a wax li je bëgg bind. deux minutes télévision une minute trente radio, mayu ma j'ai largement le temps. de revenir sur des questions de les approfondir de les analyser de def sama ay papier loolu la dans ci presse bi. pour te dire problème de choix là, parce que nous, nous tamit dañu am ay choix te euh, de plus en plus nous ni ñeme nañu dugg ci média yi bu njëkk ba j'ai été la première femme recrutée à l'agence de presse qui existe depuis 1959 nga xam ni que jigéen ñi nanguwuñu woon ñemewuñu woon daal mais léegi euh, jumtukaay yi ibbeeku na. xarala yi xarala yi bi àll bi lëndëmee course yow yaa xuus. non dañu dañu dañu dañu ragaloon rek quelque part. te parfois tam xamuñu woon aussi. Euh, lan mo len di fekk ci ci ci biir mm. waaw mais bi ñu demee ba yëf yi ibbeeku mm. opportunité yi am <coughs> euh, télé yi macha allah Sénégal tey télé yi ñu ngi mm. leen di wàññi te loolu amul woon ça veut dire qu'il y a des postes à pourvoir mm-hmm. dañuy dem ci poste jëli poste yooyu bu bu euh, internet bi même même chose opportunité la jox nit yi mm-hmm. je pense que c'est une question d'époque et d'opportunité mm-hmm. moo expliquer le la présence des femmes dans euh, les, les, les, médias comme la télévision, mais pas une affaire cosmétique. Parce que pour moi, euh, l'accessoire, là, mm-hmm. ça n'a rien, rien à voir. Je le conçois ainsi. Très bien, merci beaucoup Madame Diallo euh, Bouri Sok, moom nga xamante journaliste nous avons parlé de lu jëm femmes et médias le contexte de euh, la journée mondiale des droits des femmes nous avons parlé ñu la politique bi ànd Madame Rougui Bousso mi nga membre CRDR la ngor ngor ngir ñu CRD décalate Fatou Ngor euh, quand la transhumance menace le Macky wax na li nga xamante ne euh, moom mooy euh, ci président Macky Sall mo waral mu dugg ci walum politique mais aujourd'hui on parle d'une transhumance bo xamantene da fay menacer le Macky. le Macky ñom yakarna ni CRD déclare Ngor sax pourquoi déclare Ngor ci jamono jilé bu ñu newee journée mondiale de la femme man au sein du collège CRD Dekalaat Ngor man ma si jigen dama nekk ak samay càmmi ñoom ñu nekk au nombre de dix man maa leen onzième te onze membres lañu donc euh, membre du CRD Dekalaat Ngor mais membre de la l'APR aussi parce que le plus souvent dañoo gis prolifération des mouvement te mouvement day am kenn ku ko njëkkee am ñu nekk ci ginnaaw mais lii c'est un collège nous avons une gestion collégiale les dix-neuf communes du département de Dakar bokk nañ ci loolu ci biir parti bi la nous nous sommes dans le parti mais nous avons un collège responsable de du responsable commune mais 11 responsables dans chaque commune là. les 19 communes nous sommes si gars du di du di ko dina am nous mot mhm. mhm. parce que ñun ba dem 2009 nous ngor lañu Nous won. ñuy dem dem dem dem yoonu PS e Euh, euh, Benno Bokk Yaakaar ñëw yeneen ñëw mais dekkal ngor la ñu amoon ñuy dem ba si yàgg tuuti gisatuñu lu ñu taxoon jóg lu ñu taxoon jóg moom mooy ngor mu dem ba moo boobu waxuñu jeex na parce que ñu doon gore ñoo ngi gore ba tey mais dafa am lu bëri lu wàññeeku lu wàññeeku moom mooy ñoo xam ne dañoo jóge feneen mm-hmm. moom mooy transhumance bu ngeen di tudd bi bañuñu ko parce que dañuy massifier mais massifier mënuñu jël loo xam ne baaxul ñu koy recycler doo am lu baax parce que sénégalais yi dafa am lu ñu namoon am lu ñu bëggoon tey jii ñu jël lépp jox ko président Macky Sall. Wade moo fi nekkoon ak entourage am mais dafa dem ba entourage Wade tey jii ñoo ngi ñun. entourage Wade tey moo ngi ñun. kon am na ay transhumants yoo xamante ne daal baaxuñu. voilà am na transhumants yoo xam ne ne presque ñoom ñoo yàqaloon góor gi nañu waxante dëgg parce que tey ji da ngay toog événement day jot wala manifestation da ngay ne xalaa wadd rek moo fi manqué. Mhm. Mhm. ils sont tous avec nous. Mhm. même s'ils ne sont pas venus dans la partie ils ont créé des mouvements. mais à qui la faute Mansour. non mais je pense que euh, est-ce que tu ah, ah. ah. leader. Je nga le président Macky Sall président Macky Sall. moo waral mbir mi. président Macky Sall waralul mbir mi. parce que c' est le président de tous les sénégalais. Mm-hmm. boo ñëwee même bu dee ivoirien nga boo ñëwee da lay téye parce que ndey ji seex jaaxaanaay lay tëddee. Ah mais transhumant yi ñëwuñu directement ci moom ay nit ñoo jàpp seen loxo yóbbu leen te ñun ñooñu ci ñun la ñu ne. man toujours damay am benn moo bu may wax ku ban gañu yàlla ganu iblis wàcc la te ban ganu iblis boo balaa moo ñibbi mu jommal la. parce que tey jii ñun mënuñu nekk ak ñoom démb ak barki démb. ñu xam ñu xam suñuy compétence xam lu ñu mën a drainer ci mbooloo ñuy dem du jëli ji feneen te feneen foofu nit ñi dañoo ne woon déedéet du ñooñu. te la majeure partie transhumant bu ñëwee moom kese ak jubbam moo ñëw. àndul ak kenn turam kese la am moom mooy xàmme woon nañ ko démb mais lan la ñu mën a apporter ñooñu bu ñu mënoon dara wàdd du génn pali ñooñu bu ñu mënoon dara ñun duñu dugg palais parce que démb ñoo ñu doon dóor démb ñoom ñoo ñu doon saaga démb ñoo ñu doon sotti ndox mu tàng mhm. lacrymogène tey bi ñu démb ñoo ñu ko doon dóor tey bu ñu ñëwee ba ànd ak ñun ana ngor moo tax ñu ne dekkalaat ngor mhm. te dekkalaat ngor boobu la sax buur yi ñu bëree bëri dañ jàpp nag yéen maanaam da ngeen a sédduwul ngeen waroon a séddoo moo voilà <laughs> ah bon da ngeen mer ba fut ndax transhumant yi ma mer ba fut sax mais dañoo mer ba énervé ba énervé <laughs> parce que mer transhumant yi dañu ñëw jël nangu seeni ay poste non meer mer mer nit mun na meer mhm. parce que ñun Macky suñu kilifa la ci njabootam la ñu bokk kenn du ne merul parce que yàlla ci boppam wax na ko bugguma ko ñuy def te du mer mais bugguma ko mer te du dellu ñun suñu mer moom moo gën ci moom moo gën nax buñ koy nax parce que noon du bàyyi dóor day wér yatam hmm. noonu day nax mais nit sa nit mooy mer bu ñu nee ay frustré ni dañoo meer mer nañu kay loolu kenn du ko weddi mm-hmm. man de meer naa ñeneen tamit ñu ma àndal mbir mi parce que dama leen di waxaat encore. Mm. du man kese Rougui Bousso. y' a d' autres qui sont avec moi te ñooñu tamit dinañu ñëw ci plateau yi. Mm. man kese nag man maa ciy jigéen pour le moment. d' accord donc moo taxit man maa ciy gën a fës. très bien comme ni ñu waxee rek journée mondiale de la femme <laughs> jigéen moo. xam nga d' accord jàppale waaw teel ñu dañuy foog bu baax s'il vous plaît. mais madame Bousso ci loolu sax euh, ndax ndax du du jaxase mbir yi parce que bu ñu nee transhumance. mooy am na gëm-gëm bi si politique waaye mm. comme que kii moo nekk ci nguur yi xaaral ma dem ànd ak da fay da fay nekk mhm. eh, mel ni melni boo bo ni fu toy rek nga dem tag foofu mhm. après ñu ñew dégg un message de frustration mhm. parce que yeen yéen xeyna yeen fa nekkoon yeen xex xex bi ba mu egg fi mu egg am ñeneen ñu joggé fé transhumé parce que xam nañ leen am nañ yenn tur yi ñu jël leen am yeen fonction yeen responsabilité yeen responsabilité yu ñu leen jox alors que yeen à la base yeen a ci terrain bi diko xex donc ndax lolu nonu yépp tay ji du du du andi jaxasoo ci bopp askan bi par rapport ak gis-gis bi nga xam moom la ñu war a gisee yéen politique yi ngeen doon ci wàllum transhumance bi ak frustration boobu ndax boobaa day mel ni yëfu clientélisme politique lay nekk maa xeex ba am lii damaa war a am lii ci politique bi est-ce que aspect engagement bi du dañ foofu. voilà xam nga transhumance moo bi rek déjà wone na ko. Mhm. moom mooy nga nekk fenn ba mu wow ko nga amatul ñax nga dem màngaani nga dem feneen fu am ñax. ñun clientélisme bu ñuy wax bi ñun bañu ñu transhumance parce que nit ñi transhumance rek la ñuy gis mais ñun même au sein du parti am na lu ñu ci metti parce que du question sedd wuñu mais frustration yi lan la sax justement frustration yi dafa bëri frustration bi moom mooy dekkal ngor bu ñu waxoon mhm. lu meroon lu tax président meroon ba ne dekkal ngor rupture moom mooy nañu changé yenn comportement yi moom mooy nit ñaa ngi wax crise économique mais crise des valeurs moo am mhm. ba ci au même à la base dangay dem di di massifier di def porte à porte nga dem nga gis nit la jox ma xaalis mu mel ni moom dañ koy jënd. Mm-hmm. nga dem ñuy wax politiciens yéen li ngeen di wax li dara dëgguwu ci da ngeen di ndax askan wi rek loolu tamit dafa war a deñ. Mm-hmm. comme am na ku ko waxoon sànq l'art de la cité. Mm-hmm. mais léegi dafa mel ni l'art de gérer ses propres intérêts. moom la loolu tamit dafa war a deñ. da ngay dem à un certain moment yow sa camarade de parti ba nga doon nekkal démb ak barki démb nga dem ba boo ko wooyee du la jël. nga gis nit fu mu dëkkoon toxu. nit romb jékki-jékki yor kat-katam def ko vitrine teg hmm. romb changé ay xarit. Hmm. changé comportement loolu yëpp ci frustration la bokk. te ci politique ñun du ñu wax rek si Dekalaat Ngor wala ci APR dans tous les autres partis politiques du Sénégal loolu daf fay am. d'accord parce que dangay ngay imaginer cinq personnes ñooy nekk au sommet les autres ñu ne ay suivistes lañu topp leen ñu loolu dafay deñ dañuy def alternance générationnelle màgget yi baax na dorop mun mm-hmm. nañu nekk ci ginnaaw xelal ñu mais xale yi tamit dañoo war a nekk ci kanam mm-hmm. tey ji koo nekk loon démb ak barki démb mm-hmm. transhumance nañu ko bañ parce que ñoom tamit ay acteurs politiques lañu ñoom ñoo doon politique ñu ñëw. Mm. Mm. mais tamit mën nañu recycler. am na ñoo xam ne ils n'ont pas ils n'ont jamais fait de la politique. mais am ci wàllum politique boo war a mën a tax tey ñu war laa a mën a gérer ay poste wala gérer ay euh, que xam nañu ne euh, président Macky euh, ba mu génnee ci parti démocratique sénégalais nga ànd ak moom mosoo politique. Mm. donc loolu tamit y a un problème parce que dañ naan lan mooy idéologie ci politique lan la gëm ci politique ànd ak nit ki parce que dañ ko dàq fee wala loolu rek moo tax nga juk rek ànd ak moom war na mën a benn socle bi tax pour pour Sénégal. voilà valeur républicaine la ñu parce que man infirmière d'état là formation professionnelle j'étais dans une clinique je travaillais là-bas donc musuma nekk fonctionnaire de l'état toujours ci privé mais dama moment man damay ne sax ci politique moment bu télé ma gis ay politiciens di wax damay fay sama télé wala ma parce que man mm-hmm. ba ma ba gis ñuy xatal moo tax may dégg toujours muy wax valeur républicaine nañu dekkal ngor ma déglu bilan ma déglu programme ma ne ah kii doy na ma. man presque man mun naa ne man sax du ma APR parce que man ba may doog dem di ànd ak président Macky boobu parti amul. Mhm. ma taseeg benn waay kooku muy kan muy ABC. Hmm, Alioune Badara Cissé. Alioune Badara Cissé. Hmm. ba ma taseeg moom mu ne ma dañuy ma ne ko parti bi laa bëgg dugg mu ne hmm. ma parti amagul. c' était le 25 novembre 2008. tout à fait mu ne ma bu ñuy lancé parti bi le 1er décembre donc man ñëw avant parti. donc man dafa am li ma gëmoon muy valeur républicaine un changement la rupture loolu laa gëmoon. idéologie yooyu suñu suñu suñu leader loolu la ñu jàngal. loolu moo tax ma ànd ak moom parce que yàgguma ci politique novice laa ci. dama embarqué wu donc dama gis nit ñu koy. bundu xatal ma am li ma gëm comme sénégalais yi bëgguñu ku ñu teg lu metti ma daw ànd ak moom may ànd ak moom di gis ay qualité di ànd ak moom di gis ay qualité ba ñu jël pouvoir ba ñu demee ba jël pouvoir ma gis am ñuy soppeeku ma gis ñeneen ñoo xam ne dañ leen ne woon du ñoom ñu ñëw jël mbir mi damay taxawaat def pose ma ne waa nañu dekkalaan ngor mhm. dekkalaan ngor boobu dafa am ay frères yu ma àndal les 19 communes du département de Dakar je ne suis pas la seule toujours ma wax ko du man kese dafa am ñi ma ci mhm. àndal ci 19 dekkalaat euh, ngor 19 mhm. communes yu nekk ci Ndakaaru branche bu nekk ñëw bokk ci loolu est-ce que à la longue mouvement yeeg yooyu noonu narul nekk un parti dans un parti ci genn wàll une pierre de coups geneen gi nga wax ABC léegi du maître Alioune Badara Cissé mi nga xamante ni mm. peut-être mën nañu wax sa mentor la moom moo la mm-hmm. yóbbu bëgg loola li nga xamante ni moom ngay def ñu gis ci jamono ju ju weesu lii ngeen def mu def ko mm. ñenn ñu bokk seen biir parti bi taxaw ŋaañu ko ba dina ko njiitu réew mi dàq est-ce que yéen tamit yéen yéen ngi bokk lu ngeen di wax bokk lu di jëf si biir parti boo xam ne bu ñuy waxee ñuy jaar fii ñuy wax jaar fële mm-hmm. c'est la démocratie dans le parti mm-hmm. donc ku nekk mun na am ton bu mu wax parce que fu mu nekk nii ñun ñëpp ku nekk actionnaire la ci parce que ñun ñëpp dañoo gis un bébé bu juddu muy suñu parti ñun ñëpp ñu bokk ci man Alioune Badara Cissé moo ma yóbbu ci président Macky Sall mais yàlla xam na ne xaw ma kañ laa gëj a gis wala gëj gëj ko dégg yàlla moo ma mat seede mais tey ji ñun ñëpp ñu ñoo ànd mais tey un parti dans un parti mënul nekk. d'accord parce que ñun Dekkalaat Ngor. Hmm. c'est PR. très bien jusqu'à preuve du contraire. c'est CRD. collège des responsables du département de Dakar. très bien léegi dem na ba un certain moment nekkatul collège des responsables du département de Dakar mais il y a les autres départements ah. mhm. au niveau de Pékin, nous faut représenter.

fees del parce que Notre-Dame du Liban salle bi dina def ay plus de 500 personnes mhm. mais mbir mi dafa dem ba ñun def ñu jégg dayoo té mobilisation bi parce que dañuy wax nit ñi amuñu poste de responsabilité mais am nañu ci yor ndombal tank mobilisation bi t-shirt amu fa mhm. tissu amu fa mhm. passe amu fa transport amu fa nit ñi ñom ñoo bëgg ngor sénégalais amna na lu mu gëm donc nak lu ñu gëm lool ñom ñëpp ñom ñoo daw ñëwandoo né dañuy bokk donc nak lool mo indi CRD déclare ngor c'est pas un parti dans un parti très bien parce que APR la APR lay resté ñun Macky Sall waaw mais nag dekkalaat ngor bi moom si boppam bu ko déggee day nostalgique jërëjëf am na leneen mouvement bu nekk bu am tur mais dekkalaat ngor dafa nekk mouvement bu tur boo xam ne dynamique boo xam ne boo ko déggee rek tak sa xel day dem ci dekkal ngor jërëjëf doomu Grand Dakar muy euh, Rougui euh, Bousso membre CRDR dekkalaat ngor ñu nekk doon waxtaanee CRDR dekkalaat ngor euh, quand la transhumance menace le euh, Maki, mom nak yag yàgg song ñi euh, ci ñi nga xamantene ne euh, dañu transhumé mu yag di wax ne duñu indi Ben, plus ci li nga xamantene mom moy APR à présent ñu concentré wu touti ak ces jeunes Amadou Wad, muy président du club art et culture du CAO Saint-Michel Mohamed Wad, vice-président ak hassan Yad chargé de com hassan ana voilà hassan Yad na nga def ne ya ngi ci voilà très bien donc je vais nga wax très rapidement il y a une li journée d'ouverture du club art et culture y a un thème qui tuddee l'art et la culture au service de l'environnement euh, le choix parce que chaque année on se rend compte que la culture dafa commencer à disparaître tout le temps comme euh, madame Bousso nous mu ko waxee ci lan basé pour que la culture dafa commencer disparaître euh, perte de valeur tout le temps on voit que genre gagne des des et tout. Mais ñu bëgg que ça. cosaan. delluwaat suñu base source bi. loolu moo nous ñu inspiré waat de euh, lancer un club club d'art et culture pour sensibiliser les jeunes nos confrères nos camarades et tout. Mm-hmm les journées bi ça se tiendra. sensibilisation bi naka lay demee en quoi faisant ci lan lay tënku pour ngeen mën sensibiliser Génie à ce que ñu delluwaat ci art ak culture euh, pour développement ou environnement. Euh, dañ boba dañuy def dañuy delluwaat si comme euh, day am day am chant musique. Hmm. am danse traditionnelle. Assane Yade mooy chargé de comme nañ ko déglu hmm. uh-huh. waaw. am art culture genre les lu. Lourdes représente Afrique c'est des am si journée bi jour boobu très bien euh, ki doon wax sank moy Amadou hein Amadou joxal ma Mohamed s'il vous plaît. très bien Mohamed ñu ngi wax ci euh, li nga xamantene mom moy euh, l'art et la culture au service de l'environnement environnement ngeen amal journée bu am solo bo ngeen def le 17 mars fofu ci Daniel Brottier donc vis-à-vis de de la sensibilisation mo bëggoon nga wax ma rek quelques mots yi nga xamantene tay ci loolu ngeen bëgg sukkandiku ngir sensibiliser jeunes yi. Eh, maa ngi nuyu fii ku santam. Mhm. di di nuyu sama trois termes vous êtes le sens de l'essence de notre existence. Bon, pour Opening Day qui se tiendra le samedi 17 à la salle Daniel Brochet, mhm. Bon, l'art et la culture au service de l'environnement, concept Bouma euh, président, là, Amadou Wade jusque parce que dans cette lunette de plus en plus euh, euh soo xoolee tout le temps day cette léegi ñun sensibiliser genre à travers des pièces de théâtre entre autres en parler faire la sensibilisation sur la propreté parce que l'environnement, environnement c'est un thème qui nous a été soumis hmm. donc nous bëgg sensibiliser à travers ce jour hmm. il y aura de la comédie entre autres juste pour sensibiliser les, les élèves étudiants sur ça, quoi. Mhm. Si vous faites ça. D'accord, Mohamed, euh, dis-moi, hein, déloyons toutes toute école hein, est-ce que tolloon nga ci niveau où tu euh, a développé ay ay thèmes yu euh, parce que nous, nee nañu li ñu gis mon l'art art ak culture dafa nekk di gasax ci Tout à fait bon je réponds directement à la question Moi, j'ai toujours été leader à l'école président du foyer. Euh, président de club, président d'association, de, euh, étudiant et tout. Donc, euh, lolo, euh, pour moi, c'est important que nous ayons à la base, si nous sommes étudiants. Parce que nous avons beaucoup de choses day formater le leadership instant bi nekk en formation donc ils ont ñuy opérationnel à la fin de leur formation day fekk valeur que inculqué wu nañ ko ba très bien donc day mën a dem ak moom. te euh, comme mag yow ni ñu di hmm. la vraie connexion entre les peuples c'est à travers les arts et la culture. Hmm. ndax mooy hmm. expression bi gën vrai. donc euh, je pense que c'est un bon canal pour pouvoir euh, passer le message de l'environnement. très bien Amadou hein, très rapidement le mot de la fin hein, nga joxe date bi joxe lieu bi ak ni mu war voilà, bon, ça sera à partir de 14h, le 17 mars, samedi. Bon, juste 5 secondes, mort. pourquoi agriculture Parce que nous sommes à l'université, et que l'université de femmes collège, et qu'à au moins université, ah. CSM, moi collège. Ah. Donc, club agriculture, moi talents talent, école. Mm. Les peintres, les danseurs, les chanteurs, les comédiens. Mm. Aujourd'hui, nous sommes des étudiants, mais je pense que l'art et la culture, c'est une autre façon d'apprentissage. Mm-hmm donc nous avons un diplôme bac plus 5, études études comptables et financières. après nous avons une vocation. Mm-hmm. donc nous avons des yi des élèves et des étudiants Nous avons des talents, nous li nga donc c'est ça C'est ce comme kii nous comme ko environnement. d'accord donc ça sera le 17 mars. inchallah à partir de 14h nous ay artistes invités. il y mm. aura Doudou il y aura Canabas entre autres Nous avons des dañuy juste pour sensibiliser très bien merci beaucoup euh, Amadou euh, Wade président du club art et culture du CAO Fofo Saint-Michel andon avec monsieur Mohamed Wade vice président avec Hassan Yad euh, chargé de comme li leen taxoon a Warti le 17 mars à la salle Daniel Brottier à partir de 14h li fa xew journée d'ouverture du club art et culture li ñu war l'art et culture au service de l'environnement rendez-vous à ne pas manquer Mounek le 17 mars Inch'Allah, à partir de 14h 10h30 gërëm Rougi euh, euh, Bousso mi nga xamantene membre CRD euh, Dekalaat Ngor la mu ñëwon fi ngir ñu waxtaanee li nga xamantene moy CRD Dekalaat Ngor quand la transhumance menace le maquis et pour terminer madame Diallo né Bouri Sok mom journaliste la ñu doon waxtaan ak mom lu jëm ci femme et média en tout cas ñu ngi leen di remercier bu baaxa baax di leen ñaanal ngeen gëna dem ci kaw ci kanam ci lu baax ci lepp li nga xamantene ya ngeen ci liggé bëgg Sénégal ndaw yi gis ci seen bop bu baaxa baax on se retrouve tout de suite après cette page de pub c'est toi-même tu sais ñu dalal yeneen sur ce plateau c'est maintenant. jaloux vont maigrir. le fan club Tijan Dabo, alias Tige en collaboration avec la Radio Touya et la DTV, vous présente la deuxième édition du Giro Fouladou. Eh, Prévu le samedi 10 mars 2018 au Yongoulé, sous le haut parrainage de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, de la Première Dame du Sénégal, Madame Mariam Faisal et la Fondation Servir le Sénégal, et son Excellence, Monsieur le Ministre Maire de Kolda, Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé et Madame Khadi Kandé, c'est Hiro Fouladou, sera animé par Monte Baldé et son orchestre, Bobo Baldé et son orchestre, Vieux Kanouté et son orchestre, Bandi Mike et son orchestre, et en prime, le groupe Gelongal, Kodi Omar et King Habib, MC Balejo, Bams Taskatou Kibar, Jali Moumini, Nongo Dara et son groupe, Gemba Courant, Bouba Jali Mangou et ses courant le groupe Jiba Jamanka de Malika, Petit Hero et Alpha Yodara de la Guinée-Conakry. Invité d'honneur, le grand El Hadj Mal. Le Hiro Fouladou, le 10 mars 2018 au Yongoulé. Jarama Fouladou. ans yu Serigne Modou Niang ci stade Diop Iba Mar Diop ndaw lu rëy deuxième journée delloo njukkal Alaaji Bougane Gueye Dany borom seen TV la 15 mars ci stade Diop Iba Mar Diop bul fàtte ni Serigne Modou Niang 15 mars 98 la ñëwoon ci làmb muy 20 ans Serigne Modou Niang ñan nga boole bu jour ba mu ni Aline Mbaye Nder Doudou Bakar la fekk baax war a dajee kan Belende Serigne Modou Niang monte yemul foofu de combat spécial bi Doudou Khady war a dajee kan général bu mbaaw caatu a war a dajee kan Petit Drago war a dajee Kaw Cissé bébé Jordan war kan bébé Modou Lo Mbaye Simpi mel ni mi war a laaleeg Boy Joola Bato Sénégal war a laaleeg Guita Gaz Zongo war a laaleeg Nay Leer caatu canta mel ni mi war a laaleeg caat muy ñaari caat vingt ans yu sëñ Modou ñaa mbokk yi ñu ni busuul ba ñan ñoo ko gunge ci sponsor yi ñu ni vite fait mel mi ak kan Sanaar assurance Sococim soxna na fi fàllu fall ak jooni jooni vingt ans yu sëñ Modou lamb war nañ

wano kene koyen mber ka o fogolen sereer leya andoona yee a jega mag nu ka andoona yee ten xewu a war o xewit na duta sec maison de la culture o layanga maison de la culture koy ten refu mbind ne andoona yee maaga rek cosaan a tel um xooya koy o fog sereer fop sans koy xajo eh, leŋ mais xooya surtout xoya wa ndef leŋ xooya wa ngarit ne xoya ɓasil ne safir

waaɗe o séeréer waaɗe o ƴoola waaɗe o tuklor waaɗe olof comme ni ma ko waxee ci séeréer maa ngi woo euh, suma mbokku séeréer yépp di woo sax ñu nekkul séeréer ndax Sénégal kenn mënu ko xaaj ñaar Sénégal benn bopp la ñuy def nag émission bu mag boo xamante ne moom la ada ada aada aada yu réew mi aada réew mi nag boo ko déggee séeréer def cee bokk joolaa bokk ci ci ak yenen xeet yi nga xam ne ah ku bëgg a dëgg tëgg bu neex boo ñëwee fii ci jour ba da nga gis cosaan cosaan nag waat naa ne ku ko bàyyi ku wàcc sa and, and boo yegg fekk fa boromam kon Sala bigé mo so nga am ay émission yu neex na waaye bii Sala bigé yaa ngi doog am émission ndax xam naa ne da nga da nga boreeg séeréer yi daan la wala nga daan leen Balde boobu Balde waaw euh, ana la tong euh, li ñuy waajal nag mooy deuxième édition anniversaire DJ Tige Rapitan mi nga xamantene ne c'est tous les jeudis à partir de 14h ba 15h mu nek une émission en direct ba nga xamantene ne dafa ànd ak euh, serveur nit ñi di woté di wax seen ay soxla di def seen ay dédicace ah, donc lool nak ki koy def moy suñu mak ki nga xamantene ne ñu yaatal ah, ba ñu ñëmé fii nii ñu taxaw ni koku moy DJ Tige bonsoir DJ Tige nu mu bonsoir mon mon ami mon jeune frère maa lay nuyu. Mhm. donc di nuyu déjà ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. d'accord ak euh, ma mag suma xarit. Mhm. Neymar Ndiaye. waaw suma grand frère. Mhm. Sale Bigue Neymar ñu koy ñu koy nuyu Koura donc euh, ak ñi fi nekkoon yëpp donc maa ngi nuyu tout le monde. ñu Boy. Euh, parce que daw defoon nañ ko machallah mu jik le jik télé bi. ren ñi ne dañ koy wat waye ci tollanti bobu noonu ñu bëggoon ñi dem ci li nga xamantene ne moy euh, programme bi. Mm. parce que Fulaadu mii nii. Euh, booba Balde mini nga xamantene gis nañ leen légui ni mm, mm. euh war nañ jouer fofu ci yëngu leen. waaye tamit ñu bëggoon nga jox ñu de manière mu gëna yaatu. yaatu d'accord pour que ñu xam yan artistes ñoo fa wara jaar parce que bés boobu narul tuuti. d'accord donc avant tout d'abord ñi ngi nuyu suñu mbokk ci ca euh déjà objectif bi c'est quoi d'abord c'est juste parce qu'on a vu que euh, euh, pratiquement donc musique sénégalaise dafa am Dakarou, ñëpp yaakaar nañ ne mbalax bi kese mm. et nous on s'est dit attends donc en que déjà donc jeune de la Casamance du doomi Kolda té bu joxé waxee aar ak cosaan wax dëgg fa neex yalla sonorité yépp fa la ñuy sokkee ko donc mëna a yegg fenen ak fenen ba tey boo au niveau international. comme ku mm. mel ni Bobo Baldé. Mm. c'est quelqu'un bu li koy gis donc il a voyagé un peu partout dans le monde donc euh, Baba Mal qui rek la gëm. fu ne lay ànd ak Baaba Maal ci àdduna. la def dafa original dafa original mm. donc tubaab bi bu ñu ko gisee muy joué rythme bi donc euh, macha allah donc xam naa ne temps bi yaatu. dégguñu lu waaye xam nañ ne ni ko alaaji di waxee rek mm-hmm. ah, la wax waaye la ngay dafa mel ni la ngay wax yëpp am na njëriñ. mais lépp lépp ah, lu baax rek lay wax lépp ànd ak cosaan kese la parce que ñoom en fait cest ay artistes la te ay thèmes euh, de société lay doon lu ci ëpp donc euh, dañuy xuus dugg ci biir kër yi dugg ci gox goxaat yi dugg ci ci ci ci ci ci région yi mhm. un peu partout xool li ñëpp di dund donc mhm. euh, ñu koy ñu koy ñu koy développé mhm. di ay acteurs yo xamantene programme naka la naka tëddee à partir de quel euh, c'est vrai que xam temps bi euh, ki na té chamu ñuy xoj amul problème donc déjà artistes yi yegg nañu au passage donc Bobo balde mom ak groupe am ñu nek ni am na sax ñu nek kër ga parce que ñepp ñëpp ñu fi

le buzz. et ensuite donc d'un aussi donc gelongal Galongal son suñuy le woon ñu yoon bi. Mm-hmm. nos partenaires hein, voilà donc euh, bien sûr safari produit ay produit gelongal lañu. vidéo mm-hmm. bu aussi mm-hmm. beaucoup de kër parce que ngeen euh, au bandum. et ensuite donc beaucoup artiste artistes macha allah yi ci d'accord donc Alpha Guinée day donc Petit héros aussi Guinée nous itam les donc le prêt pour euh, delluwaat encore une fois nit surtout les producteurs ñu ramener donc musique yamul Sénégal. yamul et quand on parle de la musique sénégalaise di wax elle est plurielle lui il da koy prouver bien effectivement day wane ne nañu ay rythme bëri nañ ci facettes yu ñu mën a c'est ça effectivement donc euh, man sama sama sama mission mooy. promouvoir cette euh, cette culture. Mhm. woon nit ñi encore une fois que l'ini, nii. d'accord amaana buñ ko ex buñ ko gën a mhm. donc danañu indi lu bëri bëri et puis. d'accord mën na indi aussi tamit lu bëri ci changement rendez-vous est euh, pris demain. demain, inchallah voilà demain à partir de 22h. donc yëngu leen l'entrée est fixée. donc 5000 balles VIP 10 000. donc déjà bi préventé yëpp jeex na. Mhm. ñu koy sant bu baax a baax. donc DTV jàpp ci bu baax sama télé. mu wàccee 19h bul dem non t'inquiète a un euh, problème on est ensemble en tout cas j'invite tout le monde. donc j'invite tout le monde à venir assister. nous euh, musul découvrir culture Fula du euh, parce que duñ ko et puis également du sunu mbokk Kolda ak waa Casamance mm, mm. suspense bi leen règle la woon euh, on a vu que donc mbalax maan yu ci gën a mag ci Ndakaar ñu jour et je me suis dit je vais faire esprit man donc jouer ci bés boobu noonu pour voir encore une fois donc musique sénégalaise yamul rek ci mbalax bi c'est encore. très bien donc ñu qui ciy l'excellent mais man maa ngi ciy woo l'excellent hein. l'ancien ministre Moustapha Guirassi ci wo pour mu ñëw ci bés bi nak bés bi voilà fait partie moom ak Abdoulaye Bibi Baldé ministre de la communication sa xarit euh, xartu Thiandoum euh, voilà xartu Salé Bigué Ndiaye ni ku baax très bien sama mag moom itamit donc à demain inchallah euh, merci à tout le monde donc merci à Nicolas donc aussi à tous ceux qui j'ai trouvé ici c'est vrai que temps bi gàtt na parce que am na yu bëri magie de la télé mais mbir mi fi la jërëjëf waaw du fenn fu dul magie de toutes les télévisions sénégalaises merci beaucoup <laughs> DJ Tige rendez-vous est pris demain inchallah fofu ci yëngu leen à partir de 22h ñu ne nak bi jouni la bo bëggé nek VIP ñaari jouni la waaye femme am ay talent de renom donc mu nekk lu am solo loo xamante ne war nañ ko a découvrir parce que c'est une autre culture euh, bi nga xamante ne dinañ ko découvrir foofu ca euh, yëngu leen ñoo ngi ànd ak Koura euh, elle vient de nous rejoindre sur ce plateau nga xamante ne bés bu jot vendredi mu yegg si indil ñu li nga xamante ne moom beauté esthétique et bien-être beauté esthétique et bien-être nag li mu nar a waxtaanee dina jëm ci li nga xamante ne moom mooy peau noire un trésor à conserver donc mu nekk lu am solo donc dañ ciy ànd ak moom c'est tout de suite et maintenant

weeru jigéen la. moo tax dama war a tàmbalee si premier bi ba mars bi di jeex macha allah. noonu nga koy defee. Mhm. ngay ànd ak man ah. waaw damay woo dégg très bien donc peau noire mu nekk euh, lu am solo parce que bu ma lay xool nii rek dinaa xam ne réellement c'est un vrai trésor a conserver. Wow Nicolas euh, peau noire identité là, identité africaine là. Euh, ça permet de de savoir d'où tu viens Nicolas femme africaine boo ko moi mooy jigéen bu ñuul mm-hmm. jigéen bu taaru jigéen bu rafet mm-hmm. léegi ci biir jigéen ñooñu 80 pour cent yooyu yëpp dañu am benn complexe ci seen euh, teint noir ba mu nous leen ñuy dépigmenté wu di changer sen peau bu rafet boobu yàlla may leen mm-hmm. léegi nag balaa ma ci gën a xuus gën cee yaatal comme ni ko Awa di waxee nañ dem seetaan benn reportage dellu si waat fa nek dañu xess jour bu ma njëkkee xeesal rajo Dakar la dem bi ma demee rajo Dakar ma doon publicité suñu benn cosaan booba tawakan la fek ñu tuddé won ko directeur fayen bi mais ñima and ñepp xess a mat rek ma ci ñuul bi ma ñëwee nag ma xeeb sama bopp bi ma xeebee sama bopp sama xol jeex gis nga cosaan joojee la ma ca wayaat microcentral bi maa ko yore woon bi ma ñëwee damaa jaay douze mille francs booba temps ni daan diwoo booba da ngay wut lee bii xam nga lee lee accident bu weex bi lee bu ngi la daan boole ñun kaaw law bay dañ ko daan def dañuy boole lee bi ak lingom ak di seen rang daal di koy baxal ba mu bax ñu daal di koy sel ba mu seg ñu def ko ci pot daal di boole niko bi ak venise bi ak àbb bi ndax lee bi dafa dafa dafa foor boo ko diwoo da ngay toog ci biir bi fecc ndax wextan booba booba da ngaa bëgg boo génne ñu xool la dama daan diw man dong dama daan tëj buntu bi damay wëndeelu sama biir néeg damay fekk ba ñàkkutoo xib ndax saf gu ma saf waaye booba lan laa bëgg bu dama bëggoon xiis doo yëgg 10 jours te meloon na tubaab ndax damaa ñuuloon ñuulaay jaan bu rafet tubaab fakàlla macha allah ba ñun ma daan bul xeesal bul xeesal àddina jay ma ak mbooloo mi may dem programme yi ña fa fekk xees ma sol mbubu mu rafet mu gën a valeur seen mbubu man ñu teg ma teg gannaaw kenn caméra ma Kamera ñi xéssal moo duggal ci xéssal ah ba ma demee xewit ñu camera ma tek ma ci kanam kaset ba ñu sétan ko daal ne ma soxna mbay di nga bi tuba fakala macha allah may leen ha mu ma daal di labalé rek di gënd di diw rek kuma xoo rek daal ne ma tubaab fakala ci xéssal bi rek lo ma waxé rek bu suba lu ma wayaan dama ci may daal di jëndaat produit rek daal di di gëna rot ko rek waaye at bi ak nangam daal lepp lu ma daati may jox tubaab sakkal Abdoulaye jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm bu baax ndax lépp li nga xamante ne wax na ko ci ah. nekk na ay njëriñ yoo xamante ne ndaw ñi war nañ cee xool bàyyi ci xel bu baax turam dëgg nag muy euh, ajaratu Soda Diouf ñu gën ko ràññee ci euh, Soda mbay donc tey euh, moom la koura indi ci élément reportage bu am solo bi toujours sensibiliser envers les populations dafa am solo ndax peau noire euh, li tax ñun ñu nekk ko euh, ñun sax xamuñu ko kawe na sax suñu jot. waaw Nicolas man damay wax ni euh, ñun africains yi dañu am chance bu bu reuy chance bo xamantene yalla yàlla moo ko defal moy mélanine bi mélanine bi nga xamantene ne ñu protéger contre le soleil. Mhm. dañu protéger contre les agressions externes boo seetloo tay ji mère bi mi ngi expliquer ci bir waxam ne mom teint noir la woon dafa amoon peau teint noir bu rafet. machallah mhm. waaw muy dem di and ak ay moromam ñom ñu xéssal ba ñoo ñu luñu sañsé bu ànd ak ñoom moom la ñuy gis ñooñu rek la ñuy gis moom duñ ko gis mais ne comme si boo ñuulee tu n'as pas la beauté en fait doo rafet doo taaru te Nicolas am na lenn lu si am na ci biir góor ñi tamit am na ci benn part de responsabilité bu mag bu mag waaw parce que ñoom dañuy jàpp ni jigéen bu xeesul euh, euh, euh. non dafa yéeme nañ ko wax ñoom dañuy jàpp ni jigéen bu xeesul rek rafetul hmm. te ñuulaay macha allah ak ni ko bañ ne ko dañaa ñuulaay kaaba ga nga yor kaaba gi dafa ñuul ñi fa nekk dañu xees waaw xoolal tey ji ma jël exemple ci suñu euh, mama Soda Soda mama Ajaratu Soda mama mm. gis nga mom euh, mag la mais mm. boko ko toujours day melni 40 euh, ans la am. Mm. xam nga parce que juste pour te dire Soxna Dieng tamit noonu la mel. madame Mbacke pour wax le rek bo amé peau noir do gaaw vieillir. tay jii boy hessal à l'âge de 40 ans nga commencé. ras di am ay vergetures di am lu nek ñaaw na donc ñi saluer soxna yooyu nga xamantene ñu ngi sam seen ay der ba tey gis nga Ajaratu Soda mama Fall muy référence bu maga a mag a ci mim réew réew ba ci bitib réew waaye gis nañu tamit euh, soxna Dieng madame Mbacke momit it koy defee euh, ba ci ki nga xamantene moom mooy euh, ancien ministre mu di Ndioro Ndiaye momit it noonu la mel ñuul kuk donc ñuul kuk rafet rek donc ci noonu ñu ànd ak ki nga xamantene ne moom mooy Abdourahmane Abdourahmane Thiombane moom mooy vice président de l'association des jeunes serviteurs de l'islam muy AJS donc ñuy taxawal quarantième édition ziar annuel Serigne Daouda Mbaye radiyallahu taala anhu ce dimanche 11 mars 2018 2018 à Rufisque fofu ca Colobane euh, donc mu nar nek nekk euh, ca Colobane de nord hein très bien ñu ñu ñu and ci Combaan euh, hein, ci 40e édition bi ah mi nga xamantene ziar annuel la. alaykoum ñu ngi nuyu nga ngeen nuyu di nuyu wa plateau bi yëpp. Mm. di wax né kontaan nañ trop di fi teew di wax né ñu ngi ñun la association des jeunes serviteurs de l'islam. Mm. di wax ne. xadara ngeen association bi. association bi mën naa wax ne am na trois mois. am na trois lépp ci xadara Cheikh Hadj Daouda Mbaye la. radiyallahu taala anhu di mm. nekkoon koo xamante ne muy Mokhadam Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di di ku mag ci tarixa Cheikh Tidiane Chérif moo waral ziar bi ñuy amal le onze mars di dimanche bi bii mooy quarantième édition. Mm. ci bi soixante dix am. ñun dañoo judd fekk muy am ñu ñëw ànd ci bokk ci ndax ziar bi moom li ko dafa jóge Kajoor la jóge hmm. ay maamam di sëriñ Malick mbaay ñoom yàgg ci tarixa Tijaan doon ci ay hmm. muxaddam yu mag hmm. jóge ca Fuuta wala yaan sa Kajoor moom daw ko ko ziar moo ko indi Tëngéej bi mu ñëwee nag nekk fa nekk fa léegi ba benn njabootam gis ko nekk yow ñu ngi lay wër ne woon ay taalibe maamam ba tey gisuñ la dem na wax ko waa dëkk ba ñu ñëw fa ziar ko chaque année ñuy def ay cinq ziar di fa am six sept ba jëm huit léegi nag sëñ mi ne na fi yam ne que léegi ñaan nañ la ñu bolé ziaré def ko benn ziaré muy benn yoon muy am chaque année. très bien programme bi naka la naka tëddee le 11. wa le 11 mars bi di ñëw inshallah ñu bi di ñëw 8 8h dañ am récital Saint Coran. inshallah 9h ñu def wasifa. 10h ziaré yi commencé. ndax fu ne le talibé di jógee Sénégal fep sous région bi. machallah allah à partir de 14h bu ñu añee pare paré 15h ñu dem ci tantama nak fa le programme bi ki kay taxawé nak di khalifa di Serigne mohammed Lamine Baye atijani di ko xamante ne macha allah taxawaayam ci tarixa bi jeunesse yi ñëpp rafetlu nañ ko. Mm. di wax ne jeunesse xadara ba nag am na ay mag mais jeunes yi ñoo doon jeunes yi ci daw làqatu ci. macha allah ndax jeunes yi boo xoolee mouvement yu bëri manifestation yu bëri jeunes ñoo koy def. dëgg la ndax ni muy attiré jeunes yi ak muy defaree jeunes yi. Mm. te di wax ne dañ naan. Mm. réew mi foog nga defar ñu ko dëkkee par door defar réew mi. jërëjëf. Très bien, donc rendez-vous est pris ce dimanche 11 mars 2018 foofu rufus Colobane 2 Nord l'Univers fay 40e édition ziar annuelle Serigne